liggéeyal yalla loko Ken kenn musta liggéeyal yalla fay ko lu musta fay kenn bisam jotna suñu génné safar nak deggmal gammo kon bisub serigne touba ak bisub yonenti bi ni rek la mëna a dende ndax mom yaakar na ni leppam day maga lepp yonenti bi yu bajjul kulli kullaka yow ma ma xaddi waral ñi ngi ndokkeel mbolem umma islam bi yépp di jaajeufal ñepp ci turu Cheikh mohammedul Mountakha ci niñ wuy ci yàlla boobu nga xam ni sëñ Tuubaa wootewul lu jëm ci moom waaye sant la yàlla rek la wax di ndokkeel ñëpp nag ci weer wii ñu nekk di weeru yonent bi alayhi salaatu wassalaam tey nag ñuy def spécial gàmmo ci Touba TV muy kenn du Serigne Touba ndax Serigne Touba kat gannaaw mooy suñu Serigne te moo wax at moom njëkk a gàmmoo te gisuñu ku ko gàmmoo ci Afrique kooku yaakaar naa ni fa ab télévision nekk war nañuy gàmmo waxtu wu nekk te ci lañ ne kon nag tey jii yaakaar naa ni euh, kenn du sëñ tubaa day spécial gàmmu di Serigne Touba ak yonent bi yaakaar naa ni ñëpp dinañ bég ci mbindum sëriñ bi ci yonent bi sëñ Abdoulaye ñu ngi lay bégee di la jox nga nuyoo ci émission bu mag bii di kenn du sëñ tubaa ñu war cee gàmm di ndokkeel alxaaji Mbàkke yu ku ne xam na ni mi ngi wàcc gàmm gi ci Masalik ni ko Serigne bi joxe ndigal ndokkeel bu baax mboolem personnel bu Touba TV yëpp waaye ndokkeel ëtti lislaam bi yëpp Serigne Babacar Sy Mansour. ndokel khalif général de layen Alaaji Abdoulaye Niass ndokel wa tianaba ndokel ñëpp nak ci wèr wi nga xamni ne ñëpp ko bok way wèr wi nga xamni nak moy borom borom wèr wi nga xamni nak moy kilifa ñëpp lu yàlla bind motax seigne Abdoulaye ahlan wa sahlan wa marhaban bikum a'udhu billahi minash asheytaani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام ala man ursila rahmatan lil alamin sayyidina wa nabiyina muhammadin makin wa ala wa saxaabatihi wa xayri xadimihi wa ummatihi ajmain mbokki jullit yi mbokk taalibe yi mbokk yu tedd yi topp émission kenn du sëriñ bi ci réew mi ak ci biti réew ci mboolem gox yu feccanti ko ci àdduna bi yépp muy émission bu ngeen safoo di ko topp alarba bu jot ci seen télévision Touba TV nu ngi amaat mbégte lool ginnaaw bi ñu santee yàlla sunu borom julli ci yanantu bi alayhi salatu wasalaam santati cheikhul xadim yaakaari jaam ñi radiallahu taala anhu di gën a jaayanteeg moom di ñaanal sëriñ muhammadul muntaqa al am li taifati Muridiyah muridiya xafidahu llahu wa ayadahu wa nasara sahal na yàlla saxal ko ci sunu kanam te doli ko wér ak kàttan bannaal yi mu sumb yépp mu àggale ko ci sagoom te ànd kook taalibe yépp di nuyu jëwrinu euh, xalifa bi fii ci dakaar gépp di jëwrinu sëriñ Touba ci dakaar di alaaji Ahmadou Mbàkke yu fay di ñaan sunu borom dolli ko defal tawféex ci barke turandoom nuyu sunu nijaay ji ci kaw Cheikh Balla Coro sàmb di nit ku baax koo xam ni yitteem jépp rek ci sëriñ bi la ak luy tasaare liggéey bi yàlla ko yàlla sàmb ak mboolem ñi ci kër gi maam Cheikh Anta Samb bég lool ci feggoog yow ngay nit ku yiw nit ku bëgg sëriñ Touba nit ku silwiise nit ku am jariñ ta tabe nit ku rafet xol nuru sa turando mam Cheikh Anta di sunu rak di sunu soppe bëgg na lool nu fas and ak yow liggéey bi inshallah waye dalal ki nak sunu jarbaatu bop di nit ku mën jang jàng ko xamni ñu koy bàyyi xel yépp koy xel di ko ci yaram ci tegginam ci njàngam mu neex waye tam tek beutam nak fu sori yalla ko yalla may mu àggale amin amin ci barke turandom seigne Abdul Ahad njàngam neex na werna am nañu mbégte lool ci ganu tay gi yalla ko yalla sam man sama titre la spécialement ndax teungé jëma fété wét goga mom sunu la yalla ko yalla sam bu am dara lu ko gàllankoor ta yalla teyel ko batam ta defal ko ci taw ndax liggéey señ bi day mission bo xamni ndaw ñi nga xamni tay gi ñu ngi yor relève bi war nañ ko yob fépp ci aduna bi yàlla leen señ bi taxaw am nañu mbégte lool señ Abdou Lahad Mbaye di ko di fasiyene yéene mom ak bi nuyu cameraman yépp nak ginaaw buñu nuyu ki nga xam mooy réalisation télé bi di sëñ Mbacke Mbodj taalibi sëñ Mbacke medina ñu ngi nuyu nag jàmbaar ju mel ni Pape Cheikh Bey nuyu ko mel ni sëñ Dame Gueye liggéey bu exceptionnel ci ginnaaw sëñ Mansour Gueye ak mboolem ñiy coordonné liggéey bi ñu ngi sant ñëpp di la sant di la gërëm ginnaaw bu ñu ndokkeele julit yépp nag ci weer wu tedd wii nga xam ni mooy rabiul awal di weer wu gàmm dëppoo ganek nekk àdduna ngën gi mindeef ci tax yàlla feeñal leer yépp jële fi lëndëm indil nu texe go xamni dootu ñu am luddul texe ngir feñ gi mu feeñ ci nun boole nu ci umam ñu nekk ay julit yaakar ko di julli ci turam wu tedd wi ta sa suñ ko defé defee ko ko yàlla sunu borom tax neena day mom ak kuréelam dañuy julli ci yanante bi alayhi salatu wasalaam kon ñu ngi ndokkeel julliti aduna bi yeb ñi ci rew mi ak ñi ci biti rew fu julit ne ci aduna bi ño séq wër wi ñu ngi ci ndokkeel ñëpp ndokkeel kilifa diine yeb ak këru diine yeb di la delloo kàddu gi maam Cheikh Anta Samb di am mbégte lool ci feggoog yow jërëjëf sëriñ Abdoulaye Diop Bichri mën nañ ko wax sax suñu muallim di borom xam-xam moom itam di ko ñëpp safoo xam ngeen ni ren màggal gi waa Allemagne ñoo ko invité woon Berlin la màggale màggal gu rëy pare mbokk yooyu yëpp di ko woo dëkk yëpp ngir bëgg mu waxtaanal leen ndax sëñ Touba moom ci xam-xam lañ koy liggéeyale bi xidmatul quraani wal hadisi kanzil kitaab wal xadis wal adab laa jamu fiddatin wala jamu zahab kon sëriñ bi des koy wane wanin wi nag mooy ci xam-xam rek lañ koy wane euh, di bég di jaale bu baax nag euh, ki nga xam ni moo fi bàyyikoo di soxna maam jaara Seck euh, di ko jaale ci turu Abdoulaye sekk jànkatu xasida waaye di ko jaale Aliou sekk borom këram ak Baye Fall Seck ma nekk jëwriñu Baltimore di ko jaale sëñ Maam Mor Mbacke ca Washington ak ak Abdoulaye Pélé Seck euh, jëwriñi Washington DC di ko jaal mbooleem sëñ Xaadim sekk di ko jaale wóllër yëpp di ñaan soxna maam jaara sekk moomu yàlla na ko yàlla wanaleeg euh, yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla na yàlla jéggal ko nekkoon ku jàmbaare ca daayira Baltimore ba di jaalaat bu baax sëñ daam euh, sëriñ bàcc mbeng nekk jàmbaar joo xam ne ni mur saadix la woon di sëtub sëriñ Mor Cuun nekkoon ku jàmbaare liggéeyal sëñ tubaa ca Espagne liggéeyal sëñ tubaa ca Amérique liggéeyal sëñ tubaa fii ci soxna may Xaadim Rasoul di mag ci Serigne mbay mbeng di suñu wëllëre di suñu xarit ñu ngi ko koy jaal di ko jaal njabootu maam sëñ Mor Thioune gépp njabootu sëñ Modou Thioune gépp ak sëñ Thiat Thioune ñu ngi leen koy jàll di ko jaal Serigne Cheikh Bombali mi nga xam ni mooy seen buntu ci Serigne Touba mbokk yi xam ngeen nii tey spécial gàmmu la ñu wax te Serigne Touba moom léppam yonent bi alayhi salaatu wa salaam la salaatu sitta bi mat sitta tatihi batta maati saa saay kon at mi moom lépp da koy tagg lii mu koy julli ci Serigne abdoulat sem nuyo nak yow day don lo xam ni dina jóge ci Serigne Touba euh, mu tag ko yonent bi euh, suñu demee bay bay bay mën tagoto rek nga indi say cadeau kon lan ngay nuyo mbokk yi nga xamni ñoy ñooy tay euh, tey Touba TV spécial gàmmu Touba TV ci kenn du Serigne Touba Serigne abdoulat bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim haqqil mubin من كونه ليبين على الكتاب المستبين مع جميع النعم الحمد للحق المبين من كونه ليبين على الكتاب بالمستعبين مع جميع نعمي أمد ربي العظيم حمدا كثيرا لا يريم مسليا على الكريم خاد الورى لمنعيمي أذكروا ذا العرش المجيد شكرا يولى في مزيد مسلما على الوحيد بك الكلي وكلمي شكرته إذ غزاني في قمة المعزاني ذا خدمة في العلاني لو عفاك ولاني لو ختاب داعيا بما يهيب ماديا وغدني أغراديا زاد النداء للكرام يا رب yaa rabbaana yaa rabbaana yaa rabbaana askuru sa'yaana bil mutaqal mutarami lil mustafa lazi turam له شلاة وسلام امتداء كل عام رمت من المكرم صل على من الجعل خطب الوجود نهل وآله ذوي النيال وسبي وكريمي صل على من جعل خير النبي فضل هنا أبو الجدال في تين وعزيمي وسليما يا ربي يا على خطاب الأنبياء والمرسلين الأشفياء إمامنا المعزم وتلي هذا نعمتي على الرسول رحمتي مقلاقي باب نقمتي بسبب كل مسامي وسليما يا سمادي على النبي محمد وآله والأماد وكل ذي الرسوم يا ذا الباقى والقدامي مني تخاب بل قدمي والطردي ذا تقدمي بيا منير ذاك خيار العربي ذاك الموني للعربي ذاك سابي لترابي تبيب أعلى شقامي صل على باب الهدى ناحي المدى مولي الندى ليش العدا مع الردى باب العلا وشل من على الأمين ذاك المكين والمتين ذاك المجير والقمين بذا السنا واعترمي ذاك الوعيد والمجيد وهو المبر والأحيد من باستقامة يقود إلى جنان من عميد صل وسلم يا قدير على شراجك المنير هو البصير والنذير بالنقم والنعم ذاك رسول العادي وذاك رب العادي وذاك سوف سعدي ساك الرسول المنامي سل وسلم سرمدا يا من كفاني كمدا على بيج عمدا وليكن حميد ndax lu neex moom lu neex rek la mën a tudd macha allah yàlla yàlla def la magum lislaam wéral sa baat guddal saw fan njàng mi li muy neex neex neex yar ak teggin yee ko ëpp te al adabu afdalu min al ilmi ay teggin moo gën xam-xam moo gën lépp ci àddina ndax loo loo mën a doon ci àddina te àndul ak teggin ak yar du baax kon nag jërëjëf gàmmo nga nag ndax yaakaar naa ni jës bu moom li ci nekk ci gàmmo kenn xamul nu mu toll jës bu mooy gàmmo ndax kuy gàmmo yaakaar naa ni soo dul murit sax war ngaa mën a jël jës bu gàmmu ci ndax li ci sëñ Tuubaa wax ci gàmmu doo ko gis feneen ci àddina sëñ Abdoulaye Diop Bichri weer teru na woo xam ni su musaana teru am na nit dina jóge fu nekk ngir xam ni sëñ dina génn teru na woo xam ni du musaana teru nit dina jóge fu nekk ngir xam ne dina gis sëriñ bi waaye weer teru na foo xam ne du musaana teru xalima ak daamam de musta far waaye dina jël lu bari naan rabia awal lu baree baree bare wax na ko ci weer wi ak ci guddi gi mu bari diiwaan yoo xam ne def na ko ci weeru gàmm waaye weer wii nag yaakaar naa ni sëriñ bi moo ñu waxal boppam ni axyaytu mawlidi nabi min asasi waaye waxaadali fawxal munaa fi tarsasi kon at mi njëkk a gàmm moo ñu ko wax muy 1883 wala 4 xam wèr wi ak Serigne Touba. waye gamu ak Serigne Touba. jeuf mam Cheikh Anta jere jeuf serigne Abdoul Ahad mbay jangi mu neex ni xawna ma ray japp na ma sama japp na ñëpp kay. waaw jangi mi neex na macha allah yalla ko yalla sam wèr wi moy rabiul awal mom lañ wax wèru gam li ci xewon moy mom la yalla tamu ci mbolé wèr yi. Mhm. feñal ci ki gën ci yépp nga xam ne lu feeñ ci wormaam la feeñ mm-hmm. mu feeñal ko ngir mu indil nu leer jële fi lëndëm feeñal ko ngir mu indil nu njub jële fi ndëngte feeñal ko ngir mu indil nu xam-xam bu wóor te wér jële fi réer ak làmbatu feeñal ko ngir mu ñëw indil nu yërmande mm-hmm. ñeel mboole mbindee fi yàlla yi wa arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin <laughs> wa maa arsalnaaka illaa kaafatan linnaasi nga xam ne ci ñépp la ko yàlla yónni ngën gi mbindeef moom alayhi salaatu wasalaam <laughs> nga xam ni mooy buntub sunu borom bi sëñ bi wax na ko léegi ci xasida gi sëñ abdul ahad doon yëkkati di gës bul xulóob nga xam ni mooy miftaax ci ni'mati mooy caabi waaw waaye di meexlaaq ci niqmat yi waaw xam nga neexma ak niqma bokkul bale ayin moo koy bind bi xaafa koy bind neexma mooy firi xéewal niqma mooy firi mugal sëriñ bi ku dégg yanant bi sallallahu xam nga ci araab mhm. lay làmmeñ woo xam ni làng yi nga jàng yépp moom rek moo ci làng boo xam ni caabi bii ubbi ni mu koy wooyee ak caabi bii tëj bokkul ndax caabi day mën a ubbi mën a tëj arab nag suy def iftaax li ñuy wax ubbi ci lay indi miftaahun mooy caabi bii ubbi buy def nag ixlaaq muy tëj ngomb mu indi mixlaaqun sëriñ bi wane nag ne yarantu bii mooy miftaax mooy caabi bi ubbi lan a niama xéewal waaye mooy mixlaaqun mooy caabi bii tëj ci lan mu ne neq mugal kon ki feñ ci wër wi bi mu ñëwé lañu andil xéewal yépp tejal nu mugal mhm. yalla gënal ko ci lépp wax ni mo gën fi yépp ci jikko mhm. ndax nit man na bari xaaliss ta kenn du mhm. ak mom nit man na fess del la xam-xam ta kenn du ko soxla nit man na rëy juddu ta kenn du def ak mom waye nit bu rafeté ay jikko day gën ñëpp day neexa jaxason ndax yàlla tànn ko ni ko wa innaka la ala xuluqin azim giñ naa ni yow yanant bi jikko rafet yépp biñ dajee yaa nekk ca kaw njombaxtal ba ku dul yow yaa ko gën ay jikko mu tagge ko ci yërmande jooju fa bima rahmatin min allahi linta lahum walaw kunta faddan ghaliza alqalbi lam fadu min qawlik kon yow maa ngi lay dénk wax fu anhum wastaghfir lahum wa saawirhum fil amri wa iza azamta fa tawakkal ala allah inna allaha yuhibbul mutawakkilin mu gën ñépp jikko maslaak ñépp jëmm jooju ci kane àdduna toog na ci jataay moom yonent bi saaba yi wër ko ci wetu néegu yàlla bi ci masjid bi nit ko bañ islaam dikk ba agsi ak manditeem daal di taxaw di cararar commencé saw di gaanowaay ci kaw jàkk ci saaba yépp riir tey ñu rey ko uh-huh. ngeen ngi mindeef ni déedéet du noonu génn na awraam ba tàmbalee gaanuwaay di tuur ndox te su ko daggee mën na koo wutal mën na koo indil jàngoro bàyyi leen ko mu àggale saw ba àggal yanant bi digal saaba yi wut leen ndox mu laab këppal ma ko ci kaw fi mu gaanuwaay ànd ak waa ji jàpp ci loxoom ba ñu sori mu ni ko ku baax sunu borom daf nu digal ñu defar néeg yi pour jaamu ko moom boroom bi waaye defuñu ko ngir tuur ndox. école baa ngi noonu. kooku mooy école bi moo gën ñëpp jikko. wallaay ndeysaan. maam Cheikh Anta ki feeñ ci weer wi. Mm-hmm. toog na ci jataay saaba yi wër ko nit jaaxle ngir ko ñu jox délai ci war a fay bor bu rëy bu doon masalan tey mu ngi mel ni ku war a fay 5 millions amul fu mu yaakaar fu fudul ci ngën ji mi def. sallallahu fekk saaba yëpp wër ko. mu dik déey ko yenant bi alayhi salatu wasalaam yenant bi deglu ba agal lamb ci jibom posam jël jox waja waja ni yenant bi li yalla sak lepp ya ci gëna yes sa ba yaangi deg ma am soxla teggi mbindéef yep yaakar la ci ñew am loo may jox lu sa wéccet bi yow ya gëna yes ci jamm sa ba yirir mu ni bàyyi ko ñu bay ko mu japp ci ak mom ba ci bir mu ko la fa nekk lépp mu jox ko waa ji ku ko gën a tabe ñëpp ubbi trésor am ubbi tiroir yi wékki li ci woon portemanteau yi génne mbubb yi génne lal bi génne gëléem gi sëf koo sëfa sëf ba mu fees dell Moustapha dese benn mbubb sallallahu alayhi dama koy fësal loolu leewoon ci kër gi jox naa la waa ji ne ko la yàlla sàkk lépp yaa ci gën a baax wallaahi moo ci gën a baax ne ko ndax mën nañoo àndaat ba sama gaayee fa nga ko waxe nga waxaat lii nga wax ndax ñoom ñëpp ëmbal nañu la mer moo xam ne bu ñu ko wësinee du baax ci yow ñu ko nangu naa ñu àndaat ba agsi ci saaba yi ñu ne waa jàngi waa jàngi Moustapha ni may leen mu ne dama ni ñi yàlla sàkk ñëpp seen waa jee ci gën ñëpp reetaan ni alhamdulilah bi ni su ngeen ko loroon dinaa ñàkk ku war a dolli ko ci lislaam ñu amaale ci bàkkaaru lor ko ba pare mu yàq sama def fexe naa ba mu dugg si ci islaam ñu dolli koo ko am naa tuyaa bay tele ko ci sama wërsëg kon kookoo gën ñëpp kookoo feeñoon ci weer wi mm-hmm. cheikhul xaddim radiallahu anhu roy ko ci jikko yëpp uh-huh. ba ginnaaw yenant bi amatul ko mel ni Cheikh Mat Bamba ah, doo ko dégg ci réew doo ko gis ci mbindeef yi ci mat gi ci roy yenant bi ci xam-xam bi ci njàmbaar gi ci ragal yàlla gi lépp la dippi yenant bi moo tax sëñ Ibrahima Diop al-Mashari radiallahu anhu ba muy woy cheikhul xaddim pour mu simplal ko mu daal di wax ni ah, lam yasmah zamanun bi mislihi lam yasmah zamanun bi mislihi dalam nee na daal jamono mësuta tabe ba indi fi ku melni cheikh mat bamba ginaaw yaronte bi alayhi salatu fatan in hakamta annahu fardu asrihi fa anta izan ya sahibi hakimun adal fatan khattu lam yasmah zamanun bi mislihi walau kasurat qilul qulati wa qaluha kon sëñ bee doon bi ci lépp sëriñ seex coro mbàkke rakkam indi ko ci bayit bu simple dani zaakax tafa muqtafa xataa ka annahuma lawlaa nubuwatu za sawbaani xat na sa jaa ndax kii di sëñ tuubaa wax wa salimun min al aafaati jumlatiha wa ma nifaaqan bi ma imaanihi mazaja seex coro sëñ seex coro mbàkke rakki seexul xadim magi seigne Balla choro magi seigne Balla choro mañu denc ndar ngok neena ki di Cheikhul Khadim dafa mel ni bi mu ñëwee benn intention la am ci la dox ba dundam mat mooy xool koppi yenant bi mu koy roy di roy ba mu nañ ñom ñaar ci nuro mel ni ñaari sër yu bok même couleur wuñ ci taxaway ci métrage ci lepp ci motif desselul dara ci yenant bi ba mu na nak roy gi mu roy yenant bi mom Cheikhul Khadim mujj na mucc ci lépp luy tër ak taq mooy zéro fët moom Cheikh Ahmad kon yanant bi la defoon moo ki gane àdduna ci weer wii la sëriñ bi bëggoon mhm. mu firndeel ko ci bindam mu bari am na foo xam ne sëñ bi dani jaayante na ak moom yanant bi te ba may jaayanteeg moom ci suufa garab laa toog goo xam ni géej rek a nekk sama wet hmm? ca Gabon géej rek a nekk sama wet ak ay kàccoor ñu weddi yàlla kenn gëmu ko ci foofa laa jaayanteeg sama waa ji ca Medina. sallallahu alayhi wa sallam. baayaatahu fil baxri taxta sajara wal baxru musbidun wa xawlil fajara bokkut ak baayaatahu fil baxri taxta sajara wal baxru musbidun wa xawlil barara. dañ bi ne daanaa jaayanteeg moom ci géej goo xam ni ay sàng nga fa wër ma waaye ñu bon nga fa wër ma ci suufu garab maag moom dong. sëriñ bi ni kooku di yenantu bi alayhi salaatu wasalaam bi may jaayanteeg moom di ko sopp man xat Xadim booba sama bët gisagul jëmmam ndax marta bala mhm. léeg-léeg nitu yàlla jug di wuti ci yenantu bi am gént doyloo ko léeg-léeg mu am dégg kàddu yenantu bi doyloo ko léeg-léeg mu ñàkk koo gis te du wàññi dara ci nitu yàlla am waaye sëñ bi nee na avant may àgg ci mën koo gis fekk na ma jaayanteeg moom ci sama xol jox ko xol bi ba noppi te jëmm ji gisaguma ko sama gët samay gët gisagul jëmmi yarante bi fekk sama xol jox naa ko daal di wutal sama bopp farata joo xam ni maa ko gàlloo mooy fu ma toggati toogati di ko liggéeyal hmm. waaw sëñ Tuubaa nee na kooku di yanant bi sallallahu alayhi jaayante ak moom ci jamono boo xam ni baayaxtahu dégg nga xiina lam tarahu ay nii jamono boo xam ni sama bët gisagu ko xiina lam tarahu ayni wa axdimuhu lillahi muftarida ma koy liggéey liggéey boo xam ne nag dama ko def muy farata ci man mu dem ba mu yàgg mu ni kooku de yonent bi alayhi salaatu wasalaam sallallahu alayhi wa sallam mi ngi noonu de bërëb bii ñu wane maam Cheikh Anta mm-hmm. nee na fii Moustapha nekk cey fii mu nawara mm-hmm. sëriñ bi nee na boo indi woon kanadaa ni mu rëyee xam nga fukki réew yi gën a rëy ci àdduna Russie moo ci jiitu dëkk baa ngoog de. dégg nga maam Cheikh. Mm-hmm. fukki réew yi gën a rëy ci àdduna ci yaatu waaye Russie moo ci jiitu. Mm-hmm. Russie yi ëpp ci àdduna. ka ñaareel mooy Canada. Mm-hmm. këleen ñetteel mooy États-Unis ka ñeenteel mooy Chine. këleen leen juróomeel mooy Brésil. këleen leen juróom-benneel mooy dëkk bu ñuy wax Australie. këleen leen juróom-ñaareel mooy Inde. ka leen juróom-ñetteel mooy Argentine. ka leen juróom-ñeenteel mooy Kazakhstan. que leen fukkeel mooy Algérie man nako tok ba aduna jeex serigne bi ni rewi aduna bi yëpp buñ ko bolé won yoya la yaatu yaatu di reuy ñuma koy solal wurus serigne touba wax de lim wax ñukoy sol wurus rewi yaatu yëpp ci aduna ñukoy sol wurus diko sol wurus diko sol wurus ba wurus fi fess ba amatul espace ñu ñew ni ma Cheikh Mat Bamba yow lañu may rewi aduna bi yëpp ak wurus serigne bi neena gis na luma ma dàqal la lu ko dàq gis na lu dak ci man ñu ne ko lan moo la ko dàqal mu ne li ma ko dàqal damay waat ni moo ma dàqal ba noppi door ko wax nu mu ko waatee daal ni yaminu rabbiya mazaarul mujtaba afdalu min mil il biladi zahaba loolu li ma ko dàqal muy tiim raw do yanant bi siyaare ko moo ma dàqal ñu sol ko wurus jox ma ko man sëñ Tuubaa muy kan tiim yanant bi rek siyaare bëre bam bee ma dàqal loolu cey boobu raw du cey boobu raw fi sëñ bi tegoon yanant bi kawe na mu dem ba mu yàgg mu ni man seigne touba sax aka neexon aka neexon sama lekh bi geuna jek ci sama kanam lekham bob nga xamni seigne Moussa kané dem na balax ngir takko ak njàpp cey dem na balax ngir takko ak njàpp muni sama lekh bu tedd boobu nga xamni kanam la nit geuna fonk ci jëmam kanam ku la doon ak yow sa kanam ngay ñëk protéger seigne bi né li geuna fonk ci sama jëm muy sama kanam sama lekh aka neexon mu seey ci diggante ndëggu tànk Moustapha. sallallahu alayhi wa ak suuf si muy joggi ak a neexoon yàlla seeyal fa sama lex ci diggante boobu. yaa laytani marartu taxta xaddami xaddiya aw la xafsani bi ko sëñ bi waxe mu dem ba mu yàgg mu ni ak a neexoon sax bu yenant bi naree joggi tànkam bu tedd ba sol ci dàll ak a neexoon sama lex Nek basang ji teud dalu yarant bi di jog ci sama kaw bi ak neexon dalam ba rek di koy jaar ci sama kaw leex man lol teraanga ci man seigne touba sallallahu alaihi wasallam. Hadi jaaltuhu turaba na'lihi ya laytahu lahzani bi fadlihi mu dem ba mu yag muni bu fekkon sax jiit dafa nara fit tank mustafa wala jaan nar ko mat wala mu nar koo teg ci dégg gu ko jam aka neexoon yàlla wuutale sama lex man xaadimu rasuul mu jiitu ca jiit ga ak jaan ja ak fitt ba ak euh, dégg te tànk Moustapha bi libre ndax def naa sama lex muy kaaraange bi dox diggante tànk Moustapha ak dégg bu ko war a jam xaddi wiqaayatun li rijlil muttabaa an shawkatin wa maa yudaaha sering bi dem bamu yag mu ni watna man Cheikh Mat Bamba watna naa nga xol wat ni ci nek ni man ak yanant bi ba faw dootuñu takali sallallahu alayhi wa sallam dem na bamu nek sama xarit nek sama soppe dem na ba ag ci martaba bo xamni lepp luma ma bëgg man señ bi yanant bi bëgg nako ci sas lepp luma bañ mustafa bañ nako ci sas aqsamtu billahi inni li nabi abadan wallaay khilun wahibun wa ma abaahu yabaahu nabiyuna al mustafa xayrul fi kulli shayin wa ma abaahu ndeysaan sëriñ bi dem ba mu yàgg mu ni guddi li muy neex neex ci nelaw guddi li muy neex neex ci nelaw jaay nelaw yi guddi ak neexaay beeg lal yeeg yooyu ak wurus yi jënde ko cofeel ci Moustapha alayhi waman bi xubbihi nasiitu layla wa fiddatan wa zahaban wa xayla ba ci fasu naaru góor bëggatuma koo war ngir sama cofeel ci Moustapha mu dem ba mu yàgg moom Cheikhul yi mu ni man sax nan laay bëggeeti samay doom yi bopp nan laay bëggee ti alalu àdduna nan laay bëggee ti sama njaboot su fekkee lii war a bëgg ci xol fas naa ko jël jox ko Moustapha bëgg ko ci moom dong ba amatul place feneen kon nu muy bëggeeti yéen ndax ki ma ci bëgg kat ku degg tankam ci suuf mo la gën والله سجود كي سجد مولاك والله محمد خير من لله قد سجد محمد خير من محمد خير من يمشي على قدم محمد خير من لله قد سجد دورا وخني محب محبتي المختار سيدنا هو المغاني والاهلين والولدا واهلي واولاد الفداء له عبدا خديما له مسكان لي سندا سندا جوبا نون لا بك مصطفى عليه الصلاه والسلام اغ سي نك ني يالا داف ني جوخني ني جولي لين تي واجي يالا نكو واخ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يالا اك كوريلم غا دي اي سولدار نيغي جولي اك سيرمل سي غن دي مينديف kon yéen jaam ñi julli leen te sërmal ci moom sëriñ Tuubaa ni yàlla yaa man amarta day ko wax ja yàlla digle woon yaa man amarta waaw mu ca biir téere ba euh, jaalibatul jaalibatul maraqib yaa man amarta zawil imaani kullahumu bi an yusallu ala al muxtaari fi rusuli kon yàllaa ko digle woon moo tax sëñ bi ni ko nag yow laay jël seere yaa waxoon nan ndigal la ne nu julli ci Moustapha sërmal ci moom man dootuma ci génn mu ni comme at mi nag fukki weer ak yaar la dama koy partager en deux mhm. les six premiers mois dama koy def muy ay éloges dama koy def muy de de de jolis poèmes adressés à l'endroit du prophète Mohammed paix et salut sur lui mu dese ma six mois les derniers six mois nag ma def ko lan salat ala nabi des prières sur le prophète sur le lit may julli ci moom mu ni kon séddale naa fukki weer yeeg ñaar juróom benn yi damay julli ci moom juróom benn yi dama koy tagg mhm. moo tax ci biir mbindum sañ Tuubaa ndeysaan wax naa ni ni sëriñ bi bindee kenn bindeew ko déedéet fi sëriñ bi bindee kenn bindew fa mm-hmm. lii sëriñ bi bind kenn bindul lu ni toll déedéet warma ji ci nekk kenn amul jooju war déedéet loolu la yàlla dogal sëriñ bi ni mu bindee style bi kenn bindew ko fi mu doon binde kenn toogu fa di bind moom rek nga fa mën a binde mm-hmm. li mu bind ci moom jëmee kenn bindul lu ni toll baxru yi mu ko way kenn musta way kenn mënu musta amul ci àdduna léegi nag yooye nga xool ni mu ko séddale nga gis ci salaawaat yi nga xam ne ay julli ci yenante bi mhm. xoola bu mel ni di ma tudd léegi jaalibatul maraqib jaalibatul maraqib jaalibatu ñaar téeméeri tur ak benn la yenante bi am mhm. sëñ bi jël benn tur bu ne julli ci moom def ko xasida koo xam ni cent dix page la lépp ci yenant bi la julli xoola ma faatihul bishri wal amni wal janna fi salaati wa taslimi ala muqimi sunna boog te kubra bi bu mag bi am na bu mag am bu yem nga xam ni tey bi nga xam ni rek moom lañ gën a miin 96 pages la lépp ci yanant bi lay julli ak di ko ñaanal ak njaboot. mafatihal bishri. xoolal xasida gu mel ni Kanzul Muhtadin. nga xam ni lépp salaat dong la. julli ci yanant bi la ba keroog muy jeex mu tudde ko bànkub ñi nga xam ne ñu ngi góorgóorlu ci njub ñoom laa ko defal pour fayiku lu wóor ci julli ci yanant bi xoolal téere bu mel ni Fawzul Mutiyan lépp salaatu ala nabi la ba jeex. ñu koy julli ci moom. kii mën a julli ci yonent bi. xoolal téere bi mel ni bidaayatul xidma lépp julli la ci yonent bi ba keroog téere bi di jeex xoolal muqaddamatul xidma nga xam ne da koo julli ba indi tur yoo xam ni bokkul ci langue arabe. waaw dëgg la. xam ngeen barax lii mooy le paraclet baat bu ñaqaree xam la ci dictionnaire le paraclet muy le sceau de la prophétie sëñ bi julli ba julli ci langue hébreu taaba taaba muus muus barax liit ah mas mas ay tour yo xamanteni da daawoo ko jàng ci lulul ci langue hébreu yépp jullee nako ci mom dama dematul xitma xoolal nuru daaree ni nga xamni moy lèr gi nga xamni mo lay dindil sawara ba faw dila tabal aljana ba faw muy ñaari kër yoy aljana ak sawara bii lay jëlé ci lèr gi lay jëlé ci sawara ci lay yobbu ci aljana xolal ni mu tollu ëpp na 300 pages lépp mu def ko ci Moustapha alayhi salaatu di julli ci mom xolal asmaa ah, uhlil badar nga xam ne 313 ñi xeex la yonent bi ku ne jël na sa tur wooy ci door a jàll ngir war ma gim ko def jox xoolal téere bu mel fi madai naafi fi madaai saafi maam Cheikh Anta alxuraan ba mu jeex quatre fois la yàlla tudd yonent bi fois amul cinq amul six mhm. ci Muhammad gi normalement tur bi nga xam moom mooy is Muhammad laa wax ñeenti yoon ci benn bi Ali Imran la ko tudd benn bi sootul Ahzab ko tudd benn bi sootul Xitaa la ko tudd benn bi sootul Fathi moo ko tudd lu tax yàlla nangu koo tudd noonu tey tudd Moussa 136 fois te tudd Ibrahima 69 fois te tudd Nooyin 43 fois tudd Lóot ak Yuusufa 27 fois te tudd Aadama ak Isaa ne fois lu tax parce que wor ma ji borom bi jox sax yaranti donte moo ko sàkk moom ko muy jaamam terewul dafa fonk yonent ba wormaal ko moom borom bi. jox ko wàcc wàccuwaayam jox ko wàcc wàccuwaayam ba nga xam ne bu koy tudd lu mënta ñàkk rek lay jaar ci tur bi ni ko Muhammad xoola sëñ Tuubaa ni mu waaye Mawaahibu Naafi' 166 bayit te mu sa jaar ci turam. jaarul ci turam doo ci dégg turam da koy junj rek ishaara lay def. cey sama waaja baani cey jàmbaar xuyóori cey ku tabeka cey boroom dënn bu yaatu ba cey boroom muñ ka cey boroom xam-xam bu kawe ba cey soppe bi yàlla ba cey borom fit wu yaatu wa noonu la koy wooyee ba téere bi jeex même bi bi àggee ci saaba yi day indi seeni sifaat seeni melo mais worma ji du nangoo jaar ci tur bi directement loolu defe naa mooy worma ji moo tax man ni sëñ bi waxee ak yanantu bi kenn waxee wut ak moom noonu alal atiq ki nga xam kan alal atiq xam nañ ni ki muy wax tariq ki nga xam koy wax aboubacar waaw alal safir alal safir xam nañ koy muy wax léegi nag xoolal moom téere bi mu jàngalee gis bul xulóob nga xool ni sëriñ bi wooye gàmmoo ngoog de xam nga gis bul xulóob tey sëriñ bi tëbul dina wax lo xamni ni amal importance. Mhm. ndax way dafa am lo xamni ni ñi dégg way xol ko dañuy xol luy teggi ni xool li ñi importé nit ki nga tay duñu tok dina wax ay yarantu bi dégg nga ni mu gané aduna position bi déedéet ndax day bañ ñu dugg ci lo xam du teggin. moo tax li ñuy bi. adab adab la jangal dafa tepp ci la am njariñ rek ëpp njariñ ci lepp jikko yi ko yalla tagge waxtam guddigi mu fé njariñ ya ca nek mu ñëw ni laylatul mawlid nabi laylatu maxwi riyabi laylatu maxwi taabi wa tuhrisi taasumi biha najaatu wal falaax maa suruni wa najaax biha rabbaaxu wa salaax ma am difaa i nexam commencé ñoo wax nag njariñ li nekk ci guddik nga ne adduna yarant bi ku ko màggal li nga ciy jëlee fa kullu man waaw fa kullu man anfaqa fii mawlidihi lmusharafi maalan bi gayri sharafi walaw bi qadri dirhami fa innahu kaman xadar yawma hunaynin wa sabar wa yawma badrin wa nasar xayran waraa mu fahami mu ñu indil kon li guddi gi màggal ko di jariñ pour mbokk yi nga xamni ne mu tuuti lañu am naari nax leen ñu japp ni gam day bina mu tontu leen wax leen neen ma leen dakk jang raw leen def leen dank ay xalé ngeen guddi gi njariñ li lay jur boko ko ba ci bo joxee deureum li ngay am bo ci joxee ndawal li ngay am bo joxee suuf bo joxee deureum lu señtu ba wax ni mom bo joxee benn deureum la wax waaw mel nga diko xex badal guddi gam guddi gam nga joxe ci benn deureum dépenser ko ta yalla rek tax amul ngistal amul yaq nee mel nga ni ku présenté wu ci xaswatul badar xeexu badar jàppale yonent bi ali sallallahu alayhi wasallam wasalaam xeexle ko ba mu am ndam mel nga ni tam ku xeex ci yawmu hunayni di muñ ak di jàppale yonent bi te dugg na ci xee mboolem xeex yi yonent bi xeexoon mel nga ni ko ci bokk. seexul xaddim nee na képp ku màggal guddi gi Moustapha alayhi salaam ganee àdduna. xayril baraaya ahmada. ki may wax ma ko màggal mooy ngeen ngeen mbindéef ki ko màggal mel na ni ku sëyit koo xam ne martyr la ñu rey ko ci xeexu islam. badran bi xayri wahami. wala mu mel ni sax ku teewee batar doon xeex la yonent bi. fa kullu man anfa xafi teewul Xaadim nee na képp koo xam ne dépensé nga ci guddi googu mawlidil musharrafi guddi googu nga xam ne mu yàllaa ko war maal teral ko maalan bi xayri sarrafi bu ca benn xaalis ta bi koy dépensé yàq amu ci ngistal amu ci walaw bi qadri dirhami damay bañ nga wax million waaye doonte benn dërëm sax nga ci dépensé la wax fay nawoo ka mën a lu ko koy am mbàkke ya, mu ni kooku mel na ni ku teewoon yawma hunaynin wa sabar ca ya yawma hunaynin xeex bu metti la woon mel ku faxe teewoon wa yawma badrin wa nasar mel tam ku xeexoon ci badar di dimbale yanantu bi xayral waral mufahimi mel ni kuy dimbale yanantu bi yàlla déggloo maanaa yëpp faman yuati mawlida Seexul Xadim nee na guddi gane àdduna yanantu bi nabina babil huda yanantu bi nga xam ne mooy buntu njub fala yu'azabul ghada kooka maa giñ man sëñ Tuuba ëllëg kenn du ko réglé indal isabil mufhimi jamono ba yàlla yi réglé jaam ñëpp fa kullu man qaddara képp ku yàlla dimbali ba nga fekki guddi gàmm mawlida afdalil wara guddi nga xam ne moom la yàlla jagleel ngeen gi mindee muaziman mubashira ngay màggal guddi gi ak di bégalaate bi sukkarin aw laxami moo xam la ngay bégale suukar la wala ndawal fa innahu qasafira def loolu mel na ni ku tuuf gañe bi maa yu diimul bushara mboolem lu bégal xeetu yanant bi yëpp wala yulaaqi darara loolu dootul dajeeg lor yow majtimaa il ummami yàlla dajalee mbindee fi dooloru faman taamana yaul xat yi nee na ku ci préparé ay lekk li man la woo xat xara jox ko képp koo xam ne mu ngi jàng dara ci guddi gi ngir màggal mu bajji lan faqaba nga jublu ci mel ni kuy màggal mel nga ni ku dencal sa bopp xayraati ahlil himmami xéewal yi jox mboolem xeetu yanant bi wa man ala shayr xara ku def ku mel ni sëñ Abdoulaye Mbaye li def yëkkati dara ci ay béer wala jàng dara rek mawlida sayyidal wara nga bàyyi ba guddi gàmm jot nga yëkkati dara jàng ko barrukan fa sayyara nga jublu ci barkeel looko ci guddi yenantu bi nu moohoo bil fadxami kooka dina gis développement ak yokkuteem ci lu gaaw wayn ala maayil quri teewul xadim nee na ku jël ndox jàng ci dara bi fa shurb bil mutaari boo ca ñaanee naan ko yakufu kaydal manami ndox ma dalay fegal pexem shaytan dut la yakal yunawirul khalbashara shara saki naan ndox moomu day leral ab xolam min zalikal ma bil mujah. defal ko ak wuyu nangu ñaan ci ñaan gi mu ko naan wal khalba yuhiduna ko xolam di ne dundotul am ayib wa an in yahtami dem ci sawara iyaawu ya mawlidul basiir ya ya dundal guddi gane àdduna yanant bi yaxmi yaala wa duyóor dafay aar seen njaboot yéen ñi koy dundal fii shifaaun li sudur day maye saafara tam ci sunu xol yi li kulli haadin yaxtami képp ku koy jubal te di askanoo di ko màggal salli ala xayril basar kon yow yàlla maa ngi lay ñaan julli ci ngën gi mindeef baaxiri diimu lil busar yow yàlla mi aji des ci bu fi ñëpp jóge julli ci moom bilaali wa saabi durar da nga dolli xéewal ak mucc waa këram ak ay ànd ma salaamin yaxtami da nga defal ko tam mboolem luy jàmm yaa mulhiman qad wafaqa mu ngi wax ak yonent bi ne ko yow mi nga xam yàlla la yenkewal xam-xam yi salli ala man xuliqa yow yàlla yow mi nga xam yaa maa ngi lay wax nga julli ci moom ndax ko def ay jikkoom ak bind bindam gën lépp kal xalqi wal tusallimi nga xam ni mu gën a ñëpp jikko ne leen gën a bind xat kaana za tawassuti ndax ki may woy dafa digg doomu woon yam xocc fil xaddi jaali suttuti daay mu rafet la am yam ëppul yeesu walam yakun bil mufrati nekk woon ko pataa walam yakun bi aadami sew ruuj nekkul koo xam xeesaay bi daa ëpp walam yakun mutahama nekkul woon koo xamante ni nii weexaay ba tam dafa ëpp walam yakun mulkal sama nekk woon ko sew ruuj ba mel ni kumba liiti bal faaxa kulla man sama waaye daa féete woon kaw képp ku mu àndal di dox min muntamii li aadami képp ku askanoo ci aadam moo la sut kaana yatuulu kullu maa. Seexul Xadiim nee na ku mas a làng ak moom mu féete la kaw. masaaw fii kullin zaman. képp ku mas dox ci jamono ànd ak moom Moustapha Sut. wa kaana waasi'atan. borom dënd bu yaatu la woon ndax bari xam-xam. yadhaku bi tabassumi. daa civilisé woon du xaqataay day reetaan ci muuñ. wa jaliilul xullaboo. ku màgg la woon gaaw am changement ci wëlbati ko. ba doon musharrabu. nee na weexaay yeneen bi dañ koo sóob mel ni wurus bi tëgg bi génne. humratin mu mel ni jaune ak rouge bu ñu boole. nee na mu nekkoon borom yéen yu sëq kawar yéen yi daa sëq nee na mu am sàkkara yàlla. nee na alhamdu xeeti cant yi ñeent yëpp ñeel na yàlla. Mm. Euh, dafa am loo xam ni. muy wàcc ci euh, ci télévision bi mm. nag yooyu yëpp. Mm. ñu ngi bëgg. Euh, day koo xame ni. yaakaar naa ni li mu wax yonent bi am na ko bind léegi ni sëñ Ablaye Diop Bichri est-ce que gàmmo du ma ñëw waxtaanal ma fay ko lu mu bëgg jox ko chéquier mu bind am na koo xam ne dañu ma Ablaye Diop Bichri na ma dimbali ngir yàlla ñëw ci gàmmo gi sama kër lu mu xat-xat-xat mu def fa cinq minutes ndax nit ñi ñoo bëgg yonent bi euh, soxna mu Kiné moom Serigne xat Euh, mi ngi neex màggal suñu blaat gi rek yaa ko waxtaanal di murid saadix di ko bëgg sëñ Tuubaa ñu ngi koy nuyu di suñu mag di suñu sëriñ ak taawam soxna maam Bousso hmm. sëñ laat sa soppe yépp ñu ngi bég euh, xam naa ni sëñ Gallo suñu frère bég na ak Mouhamadou Nazir ak Baye Amadou njabootu Baye Amadou Samb gépp euh, di ziare bu baax soxna Soda Badiane suñu soxna su baax soosu sa yaay waaye sëñ Xaadim géey tamit sa wajur moom El Hadj Baara waaw soxna Aminata Badiane sama xarit ca France sama soppe kooku moom sama xaritu bopp topp émission bi nit ku baax ku bëgg sëñ Touba mu mel ni nag sëñ Bichri li nga wax ci sëñ Touba cofeelam ci yonent bi kenn dalu ko ci déedéet man zanna anna al muntaxa mislul wara fa huwa xumurun xalbahu ma nuwira kooku nee na dof la loolu loolu loolu yaakaar naa tëj na lépp ndax nee na képp ku jàpp nii am na kenn ku nduróog yonente bi wala yàlla bind na dara nduróog yonente bi kooku xumur la dof la kon loolu tëj na lépp mu mel ni Chérif Lamiral mi ngi lay nuyu moom itam ak Serigne Babacar Seck ñoom ñëpp ñu ngi seetaan waxtaan wi suñu jigéen euh, yëpp ñu ngi ñu ngi ñu ngi topp waxtaan wi ñu ngi leen di ziare ñoom ñëpp mu mel ni nag dafa am xasida gu am solo goo xam ni mm. Serigne tubaa da cee wax yonente bi lépp ëpp solo euh, Serigne Touba xasidaam yëpp am solo waaye dafa am yoo xame ni euh, lépp da ko wax yonente bi alayhi salaatu gii nag suñu rakk ji di bëgg a yëkkati. sëñ Ablaye di ko firi. àddina sépp nañ xam ni mooy mashrabu shaafi. kon sëñ Ablaye sëñ Ablaye Mbaye duggal ci mashrabu shaafi sëñ Ablaye Diop Bichri firi ko. na alhamdu xeeti cant yi ñeent lillahi ñeel na yàlla mii moo wa safari moom miy joxe lépp luy tuf man kaana fi xadaarin aw kaana fi safaarin mooy jox xéewal képp koo xam ni dangaa ne ci jataay toog wala ngay tukki moo lay jox xéewal ثم صلاة بتسليم يقارن نرا ثم الصلاة توب ماي نيان خيوال بتسليم جو اندك موتي يقارن ها نيوم نيار يال نانيو لكلو على الذي مته عياش الفكار خيوال موتي كو خامني على الذي داي واتي يانانت بيغا خامني مات هو ديكو جيما تاغسا عياذ الفكار نينا جاخالنا لوتالنا بروم خيلي muhammadin seydil atbaa'i war ru'aasha kooy wax mbàkke mu ni muhammad laa wax seydil atbaa'i kooku mooy sangu mboolem ñi ñuy topp war ru'aasa ak kilifa yi président yépp mooy seen jiit المصطفى المتبى شافي من الكبار ki may woy almustafa moom la yàlla tànn almuttaba moom la borom bi tànn ci sang asaafi min alkadari mooy ki sell ci lépp luy tilim wala lu tax zaaka alkarim alladi ma zaala kooku alkarim mooy aji tedd ji ëllësi mooy ki nga xam ni ma zaala musula deñ muntaxaba muntaxaban ñu koy togg di ko tànn ba génn ko ci excellence min afdali naasi فاوش القدر من افضل الناس بكرو بما ادم امي فك نا ني تان مامي يادنت بي دي تان با ген تي نغن جي نيت مو غن تي كو يالا مسا سوس موم يادنت بي نبد كريم سليم من كريم سليم من كرام خيار سادة الوزور كوكو موي نادبون موي سانغ بي كريم مو تيد سليل موي بروم اسكن مو ياتو بي min karimin jóge ci mbaay bu tedd di abdoulaye salilin min kiramin di ko càllaloo ci ay sang xiyaarin di ay tànneef saadatil usri di sange jamono yi maam yëpp ay sang lañu naddun karimun salilun min karimin salilin min kiramin xiyaarin saadatil usuri nee na kooku mooy sang bu jóge ci ku tedd askanoo ci ñu tedd bàyyi koo ci ñu ñu tànn ñoo nekkoon sange jamono yi قد استفي من شراف ما اتى اعاد نانا قد استفي دغ دغ كي ماي واي نك تانيف نكو من شراف تي اي سانغ يو خامني ما اتى احد امول كين تي مام يانت بي كو مسا اندي لو نياو منهم بفاحشه تروى عن الاشاري منهم تي مبولم مام يي دال كين مسو تي اندي بي فايسه لو نان لو نياو لا تروى نكوي نيتلي عن الاشاري تي مبولم جار جار مام يانت بل كل من نكاع لا شفاحك مام bal li fi nekk kulluhum képp kenn ci maami yanant bi min nikaayin ci sëy bu wóor nga sosoo la sifa akama bokkuñu sosoo ci loo xam dañ naan lii njaaloo la wala lu tegewul ci yoon xakka zawul ilmi wal irfani fi shiyaari sosoow ñu ci loo xam ni xakaa lu bon la lu ñu li ñuy nettali zawul ilmi ñoom boroom xam-xam yi wal irfani ak ñu xam yàlla fi séeri ci seeni histoire muhammadul najlu abdillahi man nasabu nu ne ko mbàkke gaawe nu ki ngay woy ko mu doon mu ni muhammadun mooy muhammad najli abdillahi mooy doomi abdullahi nag man nasabu ma nga xam ne ñu ngi koy askanale li saybatil hamdi najli haasimal wajaari da taxaw foofu ma leeral saybatal hamdi waaw mooy maami yenant bi alayhi salaatu wasalaam sëñ bi def ñuy jàngal ay maamam mm-hmm. xam nga dañ ni booy woy ba àgg ci àddinaan bul jéggi ndax boo jéggee rek euh, histoire dootul nangu mën naa am luñ ci wax luñ ci warta wax waaye boo eggee ci àddinaa ni yem fa mooy limitukaay bi sëñ bi nag bëgg ñoo toppal ligne bi fi yanant bi sëtoo nga xam ni bi muy feeñu ay maam di def ay leer ci ñoom boobu moom ganeegul àdduna ci zahir mais ci baatin mooy ndigunge abdullahi moo jur Moustapha alayhi salaatu wasalaam mm-hmm. abdullahi ñu ko jur abdul muttalib moo ko jur lu tax ñu naan ko xam bi sayba mooy firi bi jaaw saybatal hamdi mooy firi borom bi jaaw bu ñu gërëm ndax sayba mooy abdul muttalib dafa gane àdduna ci bis bi mu feeñee indiwaale siiñ mu ñuul kuk ak kawaruk bopp bu bi jaaw ba weex tàll tey door a gane àdduna kooku mooy maami rasulullah sayba moomu nag ku ñuy wax Hashim a ko jur Hashim abdu manaaf jur ko xosay kilaab abdu manaaf dafa fekk baax màkkatal mukarrama yàlla dogal daana am ci jamono lu ñuy wax luuma luuma yi mooy marché hebdomadaire yi am ci koñ yi booba waa màkk dañ fay jóge dem ba yasriba ba mooy madina ci ñi ko xamul alxuraan tudd na ko sootul ahzab waaw yaa ahla yasriba laa maqaama lakku jël yàlla deen xas moo tax ñu dindi yasriba ji di leen tuddee madinatul war mooy la ville éclairée ba boobu ñenn ñi di ko miina ci ba moy dekk bi nga xamni ni fa la yenant bi mujjé medina waye mamam jidi Hashim dafa demoon marché louma jóge makka la fekk bax dik fa am marché bu am mu gis fa soxna su rafet tab bi ci digënté mak soxna ci soxna si tuddu salma Salma waaw bimu ko gisé sop ko ne ko faaw ñu may ma la mhm. dem waxaat daanaki mbokam mbokki ndaw si ñu may ko ko di Salma mhm mu def fa fukki fan ak juroom xeex am fa ta ngor nangul dugg ci dëkkub jàmbur guerre am fa nga am fa soxna foo am soxna nga faa bokk bu fekkee guerre am na dangaa war a dem xeexle dëkk ba Xaasim nag dem di xeexle dëkk ba fekk may nañ ko fa Salma mu def fa lu mat weer dem di xeex bi muy dem nak mu ni Salma man kat jël la ngay sama soxna te yàlla lu ko neex def ta ma ngi jëm ci xex man na fa des man na ñu suma ma fa déssé bu féké jël gi ma jël doom soso na ci ëlëk na nga xamni ni ay mbokam makka lañu ñu fekk baax fa la dëkk amna fa frère bu ñi wax mutulab ma ngi mo bok nday ak bay suma ma ci xex bi ëlëk na nga xéñtu sama ay mbokk ci makka ngir sama doom ci bu dé amna ci doom mu dem suñu borom mom ko ca guer ba mu des fa salma momu jëlé ca dé nga tollu digënté kamu tolu digënté nak moy saybatal xam ni bi saybatal xam ni ganee di abdul mutalib indi walé kawaru bi jaaw bu weex tal ak siñ mu ñul kukk nga xamni ki kii ci mom fekk léru yarantu bi leen ci mu dem dem ba tollu ci rek lay préparer mu dem ba tollu ci juroom ñetti at hmm? mu dem ba tollu ci juroom ñetti at hmm. fekk na seen yaay yi moom Abdul Muttalib dañ leen di joxe ci benn pénc li ñuy wax Magic Land tey xale yi di fa dem di fo mhm. dañu fay joxe xale yëpp ngir bañ seen doom yi di leen ci kër gi mhm. ku joxe sa doom su midi jotee da ngay dem séentu sa doom woo ko añ mu joxe fa nag saybatal xam bi mu ne ci moroomam yi di fo mhm. léegi nag ñoom buñ daan fo dafa bokk ci aaday arab bu ñuy fo dañuy sànni poids jël lu diis xool ku gën a sorile foo ko sànni wala tëb di def so en longueur di tepp mom nak mu ñew fa xale yamu togal ñi am fukki at ak ñaar ñi fukki at ak juroom mom mu am juróom-ñetti at moom say bi xam ta xale yi am fukki at ak juroom bu ñu sanné seen poids mu dem lu mat 20 mètres mom bu ñewé yóbbu ko 40 wala 50 mètres te am 8 ans. ñu xam normal bu ñu tebé lu tuti mu romb leen tëb gi ñaari yoon ta am 8 ans am ben way bu ñuy wax mourira mu nekkaan ku daan dox rek ci dëkk yi di voyage yi nekkoon xaritu mutlaq mi nga xam ni moo bàyyi Haasim mii moo bàyyi Abdul Muttalib mii di saybat alhamdi di Haasim ma fa des ñoo bokk ndey ak bàyyi xaritam bu ñuy wax Mughira rek doon tukki ñëw ba toll foofu ci penc mi di féex lu gis xale yi fox tey sëñ Abdoulaye mu dawal bëtam xool-xool gis ñuy sànni mu seetlu saybat alhamdi mu gis bu xale yi sànnee 20 mètres mu sànni 40 nekk xale bu ndaw ci seen biir. mu ne lii normalul ba mu yàgg mu ni man de su ma bañu ta wax lu dul dëkk xale bii mel na ni doom yi xëës yi mañ doon wax fii la des te dëkk bii la ñëwoon yasri ba te xale bi nuru na ko lool kanam kii mënuma ci juum doomam jalay doom hmm. jékki-jékki daal ne eh kaay wuyu ma xale yi ku fëgg dana papa man mu ni waxuma la keneen ki nga fëgg dana papa man mu ni déedéet ba joxoñ ko mu ni ko man mu ni waaw yow la wax kay wuyu resim bobu bobu saybatal alhamdi 8 ans la ma daw si ñew ba ci mu ko no tuddu mu ko man euh, ma ngi tuddu abdul mutalib ñu may wax saybatal alhamdi mu ni ko yow sa bay nu mu mu ko xawma sama papa degg na dafa genn àdduna ma ma gane ko sa papa tuddu mu ko sama papa degg na resim la tuddu mu ni ko waaye juuma ma xam sa papa tigi sa rakki jumbokan ju mbokal ndey baye sama xarit ñoo ma nga jógee makka bako ko fa xamoon naa ni lii mën a nekk bi ni ko papa so make ci sama rakki baye ne ko mom limu def du leure de sama baye faatu mu bama fi te xawma sama mbokki baye ñaaw na torop ndax sama baye bu doon dundu duma ma kon warna xam sama mbokki baye nama jël si bi mu defee lolu dem nak mom mu dem doxi kursam ba ñibisi wat mom mukhira dem ci pénc màkka ma fi ñu daan di waxtaan mu gis xarit bi mutlab ni ko saa gis na tay sa dom ni sama dom, ni wa sa frère bi dom jamu am yassir ba tey laa ci teg sama beut nim la dippé nim la nuro sa way li ngay def ñaaw na demal jël sa dom céy xolam yaq ci jotaay bi mu ni wa baax na dinaa jël jatta si won dem ci kërëm teju melni ni kuy tour xewal di joy soxnaam gis ko ni ko da nga jote ci grand place mu ni ko dedet waye damay waaj bi yebo nga ñu bind sama testament ndax xaw dina dikatam duma dik waye sama doomi mag jee moom faw jël dal di jël euh, geleem ko ñu wax geleemu mbey geleemu mbey moy geleem ko wex tal war ci damay jël sama doomi frère fi xaw dina dikatam duma dik ndax mbokk yi man na xex ak ñoom waye da jël sama doom dal di dem 450 km moy digënté Makka ak Madina bi mu ñëwé ba aksi fekk xalé yi waxtu waw tembe ñuy fawaat mu gis ko rek xàmmee xam ni kii sama doom wax ni mu nuroo frère mu daal di togg xale bi teg ko ci ginnaawam togg ko ci kaw gëléem gi daal di daw dem ak moom di ko yóbbu mag mhm. ñu toog ba mi di jot soxna yépp ñëw di jël si seen doom salma ñëw xool-xool gisul say batal xam ni mu ne ana sama doom xale yi ni ko yaay bi ñuy fo léegi am na góor gu fi ñëw gu mu nuróol moo ko togg ci gëléem yóbbu ko mu ne xam naa ko mu doon waaye tey la koy mujj def dik ci penc mi wo mbokam yépp yeen suma xamone dina am ay frère ñu jël sama dom ci diggu beccëk te mënuñu ko fajj kon ñakkon frère moo ma koy gën a ñoom ñu dàq ji ñu dàq ji euh, mutlab mhm. ngir nangu ji xalé bi waye ci gatt dama la ko tekk ko top mu jigi xex nañ ci yoon wi ba rayal ba ray ko lepp am seen digënté légui nag xalé bi ñu waat ko mais bimu déme ba dëgër mo ñëwul bopam makka delu ci bokkam delu ci mbokkam bimu ñëwé makka nak amu fa njabo ndax xamuñu ay mbokkam parce que mbokki ndayam fële lañ dëkk léegi ñëw na nag ñu koy saboote ci màkka naan gan doxandéem dina fi ñëw di gis maawu zam-zam nu mu koy feeñale loolu daa mën a nekk kii di doxandéem amu fi mbokk di wax loolu metti ko dugg ci xolam mu ñaan yàlla ni ko su ma amee fukki doom yu góor nii ñu may tuutale ci màkka ngir ñàkk fi néegu ndey danga ma may doom yu góor yu ma assisté su ma amee fukki doom yu góor dinaa sacrifier kenn ki sante la ko waral ki mujj am di Abdoulaye looloo waral loolu mu nar koo sacrifier ba yee ca xew-xew ca du mat ci jataay bi mhm. kooka nag la sëñ Tuubaa àgg ci moom di la wax xam soy batal xam hamdi mooy borom bi jaaw bu ñu gërëm te approuvé ko ndax dafa gane àdduwa gane àdduna indiwaale bi jaaw mhm. demal wawa mobil manafi minal xusay wa nee na kooka nag mooy doomi abdou manaaf abdou manaaf a jur kooku di doomi xusay kabnun ibn murrat aqil qafari. muni koka tamit di domi ku ñi wax uh, murrata batay di domam wa huwa ibnu kaabin salilan li luayhimu neena koka tam di domi ku ñi wax kilab muy domi murrata muy neena koka di domi uh, kaab kok nga xamni salilan li luayhimu daal dafa askanoo ci ñuy wax luway زاكم خلاب ابن مرة أقي القفاري من نك زاك كوكو نك دي دومي كوني واخ غالب غالب مومي نك بروم درجة جو كاوي لاور وهو ابن مالك المعروف المنتشر من غالب دي دومي فحر كون فحر دي بروم درجة بو كاوي نينا فحر موم دي ابن كوني واخ مالك مالك نيون كو اسكان لي لندر نجل الكنانة أقي القفاري دي كوني واخ ندر ندر موم دي كنانة kinaana mi nga xam ne aqil fajar yi daan jug fajar di wéetali ko yàlla min noori kulla noorin saatiun bi sana mu ne nag ki may woy min noori hii ci leeram kullu noorin saatiun bi sana bépp leer bu ngeen gis ci àdduna ci moom la abbe leer nooru nujumin wa nooru samsi wala qamari mu ni nag bu ma laaj moo xam weeru jant wi nga may wax wala leeru weer wi ñoom ñëpp Moustapha leen abal leer min noori kulla noorin saatiun bi sana من نوره كل نور ساطع بسنا نور النجوم ونور الشمس والقمر نور النجوم ونور الشمس والقمر واي كوكو وهو الحبيب الذي وهو القياس الذي من اجلي رحيمت نينا نك كي درجام كي لا يالا دي يرمي نيب خلائق الله بالاحسان للمطار دامل يانغون كي وزاك نجلو خزيمه ابن مدركه وذاك نجل الحزيمة من مدركات نينا كوكو دي دومي خزيمة مي دومي مدركة اوكي سليل الياس من ينمى الى المدار كوكو دي دومي الياس ميغا خامني نك مو أسكنو كي مدار وذاك نجل النزار ابن معاده نينا كوكو دي دومي كوني واخ نزار نزار نك جوغي تي معاد سليل عدنان نزل محفوظ في القبائل نينا نك معاد مو مدي دوم تي عدنان ميغا خامني نك فلا خبار ييب يم وهو الحبيب الذي nafsi min ajli quliqan sëñ Tuubaa ni ki ma doon woy nag ba léegi di woy maamam yi nag wax wa mooy alxabibu soppeb yàlla bi nga xam ne ëllësi ki nga xam ne min ajlihi ngir jëmmam rek xuli xat ci la ñu sàkk lépp xalaayiqullaahi kal amlaaki wal bashar xalaayiqullaahi mboole mbindeefi yàlla yi dara jaam lañ leen sàkke kal amlaaki ni ki malaaka yi wal bashari ak mbindeefi ni waka samawaati wal ardi naqatibatan waka samawaati asamaan yëpp ci dara jaam lañ leen sàkke wal ardi na ak suufi xaati baatan mboole seen wal barri wal bahri misla riihi wassajaaj wal barri jéeri ji tamit ci darajey Moustapha la amee wal bahri ak géej gi misla riihi ak ngelaw yi wa sajari ak garab yi wa hakazal jinnu aydan ma bayima wa hakazal jinnu naka noonu jinne yi aydan ba tey ma baimiha ak mboolem bayima yi wakal jamaadaati misla nabti wal hajaari ak jamaadaat yi mooy yi nga xam ne yàlla leen sàkk te amuñu ruu misla nabti ak gàncax yi ak xeer yi bi noori kulla noorin mu mel ni daa far aalu ndi waxal mu gën a simple sax ni leeram daal ci la leer yépp bale benn yoon nooru nujumin wa nooru samsi wal qamari nooru nujumi leeruk biddiw wi wa noori samsi ak leeruk eh, jant bi wal qamari ak weer wi wa wal من أجلي قل لي قر شيخ الخادم nee na wax wala xiyaasul lazi nee na yanant bi mooy taw xéewal bi nga xam ni min ajlihi ci darajaam dong ruximat ci la ñuy yërëme xalaayiqullahi bil ihsaani lil matari ci la ñuy yërëme mindeefu yàlla yëpp bil inzaali lil matari ba leen di wàccal taw sax wawal karimu lazi lawlaayi maa yatuhu seexul xadim nee na mooy wëy tedd bi nga xam ne yanant bi mooy aji tedd ji nga xam bu dul woon a kaaraangeem la jaati naaru ahlal kufri bi shara kon sawara day jóge fa ki fer ñeentam lakk xi yéefar yëpp bu dul woon dara ja yenant wa wal alimu alladi lawla tasaburuhu Cheikhul Xadim nee nag mooy ku muñ ki nga xam dafa lawet bu dul woon ak mën ngaa muñam la batta min durri xarbin kulli di batari kon la tabba min dooni xarbin kulli di batari kon dina alak képp koo xam ne ko doon xeex moom di ponkalam kuy xeex yàlla da lay alak bu dul woon dara yërmande yanant wa huwa sujaau allazi lawla sajaatu nee na moom mooy aji jàmbaare ji nga xam bu dul woon moom yanant la ma gadal yowma ahlal xayri fi kon tey ñun ñi am yiw yëpp duñu am dara li ñu am wowal mu'inul lazi lawla ma'unatu Seexul Xadim nee na mooy aji ndimbal ci nga xam ne bu dul woon ak ndimbalam moom yanantu bi la saana lal huda fil xusri wal xawaari kon la saara ahlul huda kon ñi am njub ñëpp dañuy mujj fil xusri ci perte wal xawari ak ci sànkute wa huwa lazi sajadat sarhun lu wa shaka koy woy Mbàkke mu ni wa huwa lazi mooy ki nga xam ne sajadat su jóot na sarxun bànqaasu garab la hoo ñeel yanantu bi loo bairun zaka lil haqli lid darari sakaata jàmbat na bairun benn gëléem lëxoo ñeel ko sakaasil aqli dara yi mel ni jàmbat ko am xel ko koy wax ak moom wa wallazi jaaw woowa lazi mooy ki nga xam ni jaahoo dikkal na ko bis zab yun benn kéwél yu kallimuhoo di wax ak moom wa dabbu kallamoo taklima mutabiri wa dabbu te mbëtt ma kallamuhoo wax naak yanant bi taklima mutabiri wax ju leer nañ juñ mën a xalaate woowa lazi saaqa tasdiqan law qamaarun woowa lazi mooy ki nga xam ne in saqa xar na boppam tasdiqan lahoo ngir jox ko dëgg rek xamarun weer wal gisu an law taswita di ashari wal gis o ëkk ga xan na bind na yuuxu lëxoo ñeel ko taswita si asari mel na koy alko ngir namm Moustapha wa wallazi majja fawqal birri wartafaan wa wallazi mooy ki nga xam ni majja mas naa tifli fawqal biiri ci kaw benn teen wartafaat mu commencé yëkkati ko ndox ma miyaa kartifa il mawji fil qabaari teen boo xam ni daa ñiisoon ba ñàkk ndox ñu ne ko bu la yàlla yónnee tifli ci mu daal di amaat ndox mu tifli ca ndox mi di di di di rot di di yokk di yéeg ca kaw ba mel ni ay duusi géej wawa alladi laa zaala dërëmaadihoo Seexul Xadim mooy ki nga xam ni laa azaalu dootuma deñ man sëñ Tuubaa dëxër a giiru dundu ma di hoo di ko tagg xirsam ala zikri ma xatxaasa min siyaari tagg gi ma koy tagg nag xirsan xër la ala zikri xatxaasa min siyaari ngir xër ci bëgg leen wax li mu làq ci mbaax قد حاز من شرف شيخ الخادم لا خاص دا عبد الذي قد حاز من شرف دبلو ما جيم لنا واخ لي يور تي تيدغي نداخو مكو لان ذلك اعيا كل مفتكي نداخ ليكو يالا ماي تي تيدغي جام نيب بون داجي وون لوت نان جيما خام خلات لان لا يالا جوخ يانتو بي تي تيدغي فكيف يمدا وقل وقال seexul xadime nag fa kay fa nan lay demee sax yam da woo mu koy jéem a xal xalxun mindéef waxaali wu te fekk yàlla mi sàkk mindéef yi taggal na ko boppam ajramti daa allaw fi mukkami suwaari mukkami sóori mooy téere bi mag tey atte ñëpp di alxuraan ku fa yàlla dawal tagg tagg la ku lay taggati da lay safa wawa shafiu alladi mooy kii ràmm ëllëg jaam ñi ëllëg si mooy ki nga xam ne abqi man sëñ Tuubaa maa ngi sàkku safaatu ak mom indal mamaati wa yow ma safi wal kadari indal mamaati ci bu dee nuyoo yow ma saf ak bis ba nga xam ca la ñuy sellal wal kadari ak bis ba nga xam ca la yey di nëx yow man yafirru mun mooy bis boo xam ne yafiru dina daw waaliduhu ki juróon min al mawludi ki mu juróon fii waayinun min al adbaai bil azari mooy bis bi nga xam ni ku ñépp toppoon yaakaar ko dina daw joxe ngant ni mënuma fi tey dara قليل min muqallili sëñ Tuubaa nee na mooy bis boo xam ne xarit dina daw xaritam ni ko séqatuñ daan ndax bis penc bi yow man turaami bihi niiraanu bi shara mooy bis bi nga xam ni innahaa tarmi bi shararin kal xase ka annahu jimaalaatun sunu ca suutul mursalaat day bis ba sawara day sànni ay ferñeent wa dhalika al yawmu laa yughni banuun wala yawma laa yanfa'u maalun wala banuun ila man ata allaha bi qalbin salimin uzza fil jannati lil muttaqin wa burizatil jahimu lil ghaawin suñ fa àggee bis boobee nee alal du fa jariñ ak doom lu dul xol bu sell bis booba laay wax si siwa muxlisin lillahi mustajir nee na bis booba daal ku jàjjoon sa bopp jaar ci njub dong moo fay jariñ wa dhalika al yawmul yanju si waa waraaxin Seexul Xadiim nee na bis booba kenn du fa mucc ku dul koo xam daa sàmmoon boppam xat kaana fay mucc mooy koo xam ne daan tuubal yàlla di jàjji boppam di jub ci jëm ci njub yow man takunu mooy bis boo xam ni mbir ya gënoon a nëbb léppay feeñ ni ñu jàkkaarloo ko li kulli si safatin ma nazaar li kulli si safahin mooy ñeel képp ku dof ak ma kulli si ak ku am gis-gis bis ñëpp a yem ca bis ba yow man bihi yakshifu rahmanu awratasi nee na bis la boo xam ne yàlla day weññi awraw képp koo xam ni shirkin wa awratasi fisqin wa zigadaar képp koo xam da daan bokkaale sunu borom di def shirk wala nga nekkoon koo xam da ngaa am ak caay-caay ak naafiq bis ba yàlla day weññi sa awra yow ma bihi yasturu rahmanu awratasi waaye Cheikhul Khadim nee bis boobee buñ ci àggee yàlla dina suturaal awra képp ko daan tuub tawbin wa awratasi naatiqin wasi bis booba yàlla dina suturaal awra képp ku doon tuub ak kuy dëggal ak kuy taxaw guddi di julli yow man yasiru jamii alxalqi qaatibatan Seexul Xadim ne bis ba amatul reculer avancé rek avancé jam ñépp ay avancé jëm ci yàlla li zil jalali fa yasil kulla fil adaari ñépp waaxu jëm ci borom mag gi yàlla bis ba lay fay ku nekk ca teewaay ba bopp laatal tey nafsi si wal muntaqal muxtaari min muxtaar nee na ba mu des sunu sàng ba ca Medina mooy jug naan sama xeet bi sama xeet bi alay min salawaatillahi afdaluha nee na kon nag yal na yàlla wàcce ngeen ji xéewal ak mucc ci moom wala li wa sahbi ma daarat zawu shafa ak ci waa këram ak i àndandoom feek borom tukkikat mu ngi wëndeel subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin mooy xasida googu nga xam ni sëriñ bi jàng na ko léegi sëñ Abdoulahat yàlla ñu yàlla fayal sëriñ Touba wallaay ndeysaan bis boobu ànd faak yonent bi rek wóor waaye ànd faak ñii liggéeyal yonent bi rek wóor suñu jàmbaar jii di xaadimu rasulillahi nee na nag bahabiyallahu kiraamal xurra wa bi baqaiya nabiya sharra kon nañ suñu xel dal ñun ñi ànd ak sëriñ Touba tey jëfe ndigalam ndax nag wax dëgg yàlla cheikhul xadim moom liggéeyal ko ba wàcc yaakaar naa ni la waykat ba waxoon rek nee na képp kuy liggéeyal sëñ Tuubaa ba wàcc duñ la dugalee ci bàmmeel mhm. da xam kan mooy sëriñ Tuubaa kon nag yàlla ñu yàlla fayal suñu jàmbaar ji mhm. waaye bis la bu mata waaj mhm. bis la bu mat a bàyyi xel al yawma naxtimu ala afwaahihim wa tukallimuna aydihim wa tasu arjuluhum bimaa kaanu yaksibuun lu mat a bàyyi xel la sëñ Ablaye Diop euh, dugg na ci masura bu Shaafi way na euh, li sëñ Tuubaa way yonent bi xajul ci ci ci ci ci ci guddi gi yaakaar naa ni ñu baree baree baree tey ñu ngi soxna maam Ami Ndiaye bëgg fàllu ndeysaan euh, moom alaaji Mbàkke yu nga xam ni moom waaw ndeysaan sëñ Fallu la bëgg mm-hmm. di jàmbaar di koo xamee ni ay terangaam ñëpp jot nañ ci ci waxtu wu nekk mm-hmm. ci ñiy liggéeyal sëñ Tuubaa ak jànkati xasida yeeg ñëpp yàlla yàlla guddal fanam te wéral ko ñu ngi koy ziare soxna may moom sëñ euh, Abdul Xaadir Mour Sadix mm-hmm. soxna may daba jóg euh, mi ngi mi ngi bëgg am na ku ma bind léegi ni ma Serigne Abdul Xaadir nag moom la yonent bi fekkoon ca xayma ba waaw wér na ca Baxdaat ca Baxdaat kon Serigne Touba ak njabootam rek hmm. euh, bari ci ñoo xam ne ñu ci bari hmm. seen digganteeg wax yaakaar naa ni borom saam magam waaw wax na ni Serigne Touba wax na ni ko ni yonent bi alayhi salaatu salaam nee na ko mboolem ay turandoom borom saama ku ci gën waaw loolu la ah, kon Serigne Touba ak yonent bi moom doom sëñ Baara Xuree tam di gane àdduna waaw mhm. sëñ bi wax na ni sëñ yonent bi ñëw na fi boobu sëñ baa ngi waaje Mbàkke Baari Jolof mhm. ah, ba mu demee fofé ca ziaré ji nijaayam ja fu mu nekkoon ca serigne sëriñ Mbusoobe waaw néna kérok keroog yarantu bi ñëw na fa ni ko gan gi gane àdduna dama ko tudde moo tax tudde ko sëñ Baara Xurija Mouhamadou Lamine Baara lolo waral sëriñ Baara Xurija amoon cëru boppam ñu ngi ñuy wa sam yépp serigne Tuubaa ak yonente bi nak raama rasulillah min ilahi kawni khadimuhu wa abdullah kon kenn xamul seen digënté dédé kenn musa dégg ci adina ku ne yonente bee ma sàkku ci yàlla kon Serigne Touba waxal boppam ni yonent bi moo sàkku ca yàlla kon nag kooku digganteem ak yonent bi yonent bi lépp bari lépp la ba Serigne Touba la am Serigne Touba la Serigne Touba tamit daraja ci ak ju a am mi ko amee ci doon taaliba yonent bi waaw sallallahu baana li kulli man loolu maqulu ana wasilati wa rasul ñi xel daal xam nañ ni benn wasila laa am muy yonent bi alayhi salatu wasalaam kon ni soxna ba Kebe ñu ngi koy nuyu bu baax sëriñ Abdou Aziz moom sëñ Modou Awa Balla ca Daarul Moxti waaw ku ne xam na ni guddi gàmmu Daarul Moxti na muy mel Daaru Salaam sëñ Xaadim mm. Loo Gaydel ñoom ñëpp ñu ngi topp waxtaan wi ngir mm. euh, bégg la sëñ Sambakan bu El Hadj Baara ah, Falilu sëriñ Sambakan euh, El Hadj Baara Falilu suñ jugee léegi ca moom lañ jëm ak Serif mm. ku ne xam na ni guddi gàmmu tuuba sëñ Dame damaa bëggoon bala ñu tijji téléphone bi wala bala ñu dikkaat ci euh, yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa bari jagle yo xamni ni suñ borom da ko defal ken fekk ko ci moom alayhi salaatu wasalaam nga xamni waye nawlo gumu nawlo nak nawloo nag ñi mu àndaloon sëñ Ablaye dafa am ko wax wax ju am solo neena lan motax yonenti bi jël domam jël doomi Aboubacar Saddeex muy aisha lan motax mu jël domi umar muy Hafsa lan motax mu jël domam may ali lan motax mu jël ñaari domam may usman ay nit ku leen bëgg a yilif da leen di nawloo gis nga tam ni sëñ Touba defee sëriñ Touba da ko royaat yaakaar naa ni lépp la roy ci ren mu ngoog soxna Fat Ja Touré soxna Fat jox na ko sëñ Mouhamadou Gaye Jamooy jox na ko sëñ Daaru Asan ah, gis nga soxna Ummi Mbàkke mu sëñ Touba jox na ko sëñ Mayaasin Ummi ca ko yaar dëgg la gis nga soxna Muslim Mbàkke mu sëñ Touba mhm. jox na ko sëñ Daam Abdourahmane Lo jox na ko maam Cheikh Issa Jenn dëgg la ah, gis nga ko mel ni Euh, soxna Asu Gaawaan. dëgg la ca Medina Touré. dëgg la waaw. waaw jox na ko sëñ Modou Lamine Touré sëñ Modou Lamine Touré. soxna Asu Kajoor. soxna Asu Kajoor mu jox ko sëñ Modou Samba Diop. mu ngoog euh, jarbaatu borom Daaru Muxti. ñoom ñëpp kon ñu bajj lu kulli soxna jox ko sëñ Ibrahima Lo. sëñ Ibrahima kon kon da ngay xam ne li mu wax rek yu bajj lu kulli kullakal yow ma maaxati. sama lépp day màgg lépp yonent bi. kon sëñ daam ñu wan ñu tuuti gàmmu Touba ñu nuyu bu baax Serigne Cheikhouna Mbacké di Serigne Sam Mbacké moom Serigne Cheikh Mariam Diène nuyu Serigne Abou Mouhamed xalifa Serigne Modou Mamoun nuyu Serigne Cheikh Anta mu yor kàddu Daaru waaye di ziare bu baax euh, Mouhamadul Lamine Guèye euh, di taalibe Alaaji Xaadim conférencier nuyu suñu jigéen soxna Daba Loum Cheikh Moustapha moom Serigne Alaaji Xaadim Badara Guèye mu ngi nuyoo conférencier ñu ngi koy nuyu Sedima Sedima bala ca euh, tënk ndeysaan ndeysaan moo yor foofu Kental Touba Kental moom ku baax la taalibe bu baax la mu ngi topp jataay bi nee mu ngi ñu ngi koy nuyu bu baax moom tam kon sëñ daam ñu wan ñu tuuti image yu gàmmoo Touba ak njaareem nga xamni gamu gàmmu yaakaar ni du jotee penc seigne touba ak keur seigne touba yi ci rew mek ci bitim rew fo ci dem dinañ xamni ni seen kilifa mo ni won ahyaytu mawlidin nabi min asasi waaye waxaadali fawqal munafital sasi fofa dani ahyaytu mawlidin nabi min asasin wan qaadali fawqal munafital sasin wat ni ahyaytu mawlidin nabi min asasin wan qaadali fawqal munafi hamsasin fi hamsasin wa wa 1925 la da fay wax ni man màggal naa guddi yenant bi ci 1883 waaye li ma ci yéene woon nag mais nag la ma ci yéene woon yàlla nga ko wommat jox ma ko 1921 ni ma téyel barakallah beneen bi mu jox ma ko 25 ni ma téyel sëñ Ablaye Diop yaakaar naa ni tey dugg nga ci siira hmm. na ko mbind ni ma a ubbi école di jàngale siira ndeysaan waaye sëñ Touba ku xam ne sëñ Touba si sëriñ nga gëstu mbindum sëñ Touba mën ngaa jàngale siira foofu waaw ah, bu wér ndax yaakaar naa ni dafa mel ni sëñ Touba li yàlla melal yonent bi sëñ Tuubaa rek la ko wan wallaay ndeysaan waaw dafa mel ni sëriñ bi ni muy tagge yonent bi dafa jéggi dayoo waaye nee na mboolem ñi liggéeyal yonent bi man maa ci jiitu antal muxaddimu xaddim nii huna wa xadan ala kasirin min al axyaar yàllaahu kon isam tadaxtul muntaqa sujaa saaqa li gayri badanil aw jaa kon nee na su ma amee lu may metti sax su ma commencé tagg rek yàlla dindi douleur yi ma nee na mooy saafaraam waaw mooy saafaraam kon nag ta kon nag kon nag taalibim bu mag ba moo yaakaar naa ne yonent bi ku mel ni sëriñ Tuubaa يكرنا ني كن رك ما ورا ما ندون سكيلي فم علي سرعة وصل سن دام يسات على لولو ديكات من تيجي تلفون بنا غاني عندي وقت فنك عندنا سن تكريم يا الله لي إما كل جبار دون لقم كل إدا بلاسي لاخترت يا الله لي إما جبار دون الإنقاذ كل الإداد بنفسي لاخترت يا الله كرهتني كل في كبر بلا كل في يا متكبر تل كل يا الله يا خالق الخلق لما أساء أبدا بالبير والثري والرلوان يا الله يا بارع الخلق قد لنا فدعونا سم وخن الأجر للجماعة يا الله أنت المساور قل للنبي بسارا وصورا ليادو للمكر يا الله خلقت لي كل سن بالغاد أتيت بي لزاد بسكريا يا رب يا الله غمدتك يا خار يا الله وابتلي من سهر لنفاخ مسألته فلا كسب ريايا وأبحي الله لغوت أزمان لج يا ملو أموره وغوت لي رصايا رزاق يا الله فتات لي كل بعث بن كنت لا تأمر آه. لأوليائك يا فتاة يا الله ألم تنل قباء تعفت منتميئا أتى الأليم لاسين ألمت يا الله خبرت يا قابل أساء وانصرفت لخير نبيك ak daar yàlla. te loo fi dégg ci waa ji ba toppee ko ko la ko ci sëñ bi waa ci sa bëtal la koy wan. jërëjëf Borom Tuuba. nga dëkk ak moom bokk ak moom aw askan bokk ak moom ab der ba noppi mën ko puukarewoo ci biir gaa yu baax mais yëf yi yàggul gaa ñi waxuma ay xar baax waxuma secret lii quatrième la seetkat yeeg calculkat yi nañ ko xoolaat fii matul téeméeri at lii du àllaaxira bis penc la waaye liggéey la loon xel yi nag ngir yàlla lii du àllaaxira bis penc la te doon koy dudd nag te amul Amérique amul Afrique amul Asie fii rek la am sëñ Bamba fii rek la am waaw jër bu matul cent ans génn résultat bu toll nii ci Touba dëkk bii rek doy na xar baax pour nit mën a gëm moroom mën ko topp nit koo xam ne bi mu tolloo ci war a doon mat nit la ko tubaab yi teg loxo mësul libre ceddo yi di ko xeex sëriñ si di ko fiire tubaab yi di ko exilé te moom mu def mbiram non violence du fayu boo koy dóor du tontu du defante kérok ba mu taxawee tundu jeewal tubaab yi nar ko yóbbu du ko exilé taxaw ci bële tund ànd ak Clerc général Leclerc bi nekkoon Louga sëñ Touba jàkkaarloog ñoom mag nga ko toppoon seen i armée la ngi nii fii fi sama ma ma Mor Diarra bu naan mun suba moo war na leen kenn. ndeysaan jërëjëf Serigne Dame doomi Serigne Modou Fane Ndiaye ak Sohna Fati moom borom sàmm yàlla nañ ko yàlla fayal alaaji xaadim moom wax na lu ne nee na wax na dëgg Serigne tubaab fii rek la am fii rek la am kenn si di ko fiire ceddo yi di ko xeex tubaab bi di ko exilé lii gars yi ne calcul du calcul ah, Touba matagul téeméeri at déedéet ko kenn kenn du moom nag sëñ xaadim wax na lu ne ci at na lu ne ndeysaan yàlla nañ ko yàlla fayal amiin amiin sëñ Ablaye euh, ñu ngi ñu ngi ñu ngi koy bégalee alhaaji Petit Guèye waaye di nuyu bu baax nag suñu xarit boo xam ni yenent bi rekk la bëgg ci àddina hmm. muy Cheikh Makhtar Thiam bu melax ak a baax ñu ngi koy nuyu di ko siyaare ak a baax sëñ Ablaye kooku dafa bëgg yonent bi alayhi salaatu salaam ba weer wi di jotee yaakaar naa ni mbégte mi muy àndal jeggi na dayo ak a baax waa moom ku koy ku koy nax ci moom nga koy naxee kuy bëgg lu ko neex ci yonent bi nga koy bëgg Makhtar Thiam mii ci wetu mii ci wetu kër Xaadim Gueye damaa mës nuyoo léegi moom ndeysaan jataay ba daa gàtt lool waaye la mën nuyoo ci xaalis dama tiit waaw nit ku baax la waaw nit ku baax la waaw nit ku baax la kon nag yaakaar naa ni sëñ Dame euh, sëñ Ablaye euh, hmm. yaakaar naa ni dafa am loo xam ni hmm. euh, faw nga dugg ci hmm. mooy sëñ tubaa ak gàmm ndax sëñ bi moo daan génnal boppam jaareem di gàmm waaw ah. wax nañ ni bernde yi moo ko daan séddaleel boppam wax nañ Euh, euh, euh, yin daan yin daan joxe muy teraanga yi mhm. moo ko daan séddalal boppam mhm. jukki yi mhm. sëriñ Moussa Abdou Khadir ku gis ni muy gàmm moom tam maanaam sëñ bi daa dem na ba daawul xaar sax gàmm waaye dama ni la bu déggee nga nuru turi yenant bi rek commencé naa gàmm ci yow dafa am bis ñu nuyule ko kenn ci fere yi mu ñëwee di nuyu sëñ bi sëñ bi ni ana laaj ko turam mu ne ko Muhammad sëñ bi ni ko sa wéejur wu góor mu ni ko abdullahi sëñ bi ni ko sa wéejur wu jigéen mu ne ko aminata sëñ bi ni ko foo bàyyi ko mu ni ko Medina gii ci Saalum mm. nekke loolu jàpp na sëñ bi sëñ bi ne ci xaal daal di gaaw wëq waxande yi di génne ay jàllaa bi di ko këpp di génne ay parfum sikki di ko sotti di génne ay teraanga di ko jox di ko jox di ko tuur xéewal yi lu muy xalaat rek dem indi suur ko mujj gi mag ñi bi sëñ bi duggaatee di wuti lu mu ko jox ne ci xaal mag ñi daal di wokk kooku ni ko gaawal dem sëñ bi dafa ne ci xaal mu dem bi sëñ bi génnaatee ni anamu ñu ne ko jaar na ni mbàkke ba wéy mu ne gën a nuroog sama waaja noo tudd mu ni muhammad nu sa ndey tudd mu ni aminata nu sa bàyyi tudd mu ni abdullahi foo dëkk mu ni medina nuroo na lool nga xam ni moom bu déggee turu yanantu bi ci xaal bi muy nekk beneen affaire lay doon loolu sax wax na ko ci xasid ak maziyaat Hamad Souleymane Hamad Souleymane boo ca demee da nga dégg mu wax ni muhammadun zikruhu unsi wa mafraxati wa nuuru qalbi wa aadaa'i wa raaxaati dégg loolu nee na muhammadun tudd turam wi muhammad zikruhu di ko tudd rek ñu ne waaw mu ni unsi mooy sama wéttal su ma naroon a wéet sax su ma déggee turam daal di wéttaliku unsi wa mafraxati mooy tam sama contentement sama mbégte wa nuuru xal bii mooy sama leeruk xol wa aada mooy sama leer yi cër wa raaxaat mooy samay rëppo mooy sama euh, temps bu paisible mooy sama tranquillité su may dégg turam damay am repos am tranquillité bu may dégg turu yonent bi alayhi salaatu wa salaam sallallahu moo tax gàmm gi moo ko daan génnal boppam ànd kook ñoom mm-hmm. bu génnee ñaare dañuy jàng jës mawaaxibu muqaddamaat ndax daana wax ni ñetti fasa ngi nii yoo xam ni bépp gawar bu ko war te wàccoo leen dinañ daw ak yow ba jëmbee la diggu aljana te kenn du la fa génne moo tax moo tax moo tax dongo laxasaay yi ci Serigne Saliou ñëpp daan mokkal sas farata la ndax sëñ bi noonu la ko daan teewloo bés boog mawaaxi boog muqaddamaat am na sax menn at ñu cay jéem a boole yeneen yoo xam ne ay wolofal la mu ne luñ ko lu ci indi lool mais sëñ blaye dama gis gàmmo gi go ci muxaddamatul amdah fi masaaya dina ci duggu ndax xam nga bobu téré wax boobu téere ni wax nañ ni buñ né buñ tét bu dajalé dajalee tàggkatu bi yépp ñu dajalo sallallahu alayhi wa sallam suñu ëndé sama muxaddamaat benn bayit ko né da ngay japp ni tàggoon yenant bi ndax yému ci muxaddamatul amdah nga xol ni ko señ bi liggéeyee da ko def par fukki buntu ak yaar mm-hmm. buntu bu mu ci doon xaraf bi señ touba doore woy mom la koy xam nga bu jëlee waaw gi ne wa siqtu ndax wa innaka wa innaka ala xuluqin azim la ko tëgg bu ne wa siqtu bi rabbil arsi zil judi wal afwi ma al mustafa wallahu li mukhlidun safwi waaw gi mu commencé wa siqtu ak afwi dégg nga sax nu ko waxe safwi safwi ma al mustafa wallahu li mukhlidun safwi ñoo ànd. wa siqtu xam nga waaw lu commencé. bi rabbil arsi zil juudi wal afwi maal Moustapha wallaahu li muxdiru safwi wii bi la koy tëj. su demee ca araf yi nga xam ne ko commencé liif. comme tey mu ni ayaa xaadimal muxtaari xam nga liif la commencé. laa tansa saxbahu fa man yansahum fal matxu matxun muqattahu liif ka dikkaat. su jëlee yanara. nga gis fu mel ni yu bashirukal baaqi bi xat yi karamatan wa an wa in kuntu an ardil madinati za na yi yanara gi mu commencé woon moom lay tëjawaat mhm. dégg nga su jëlee ayn alimtu yaqinan anna mawlaaya kaana lii wa mhm. anna al muqaffa man xalaaniya yardau mhm. ayn jim dajale tëje mu way ci xeetu wayin woo xam ni ak luxa bu xóot boo xam ni man ngaa jàng bu jeexal téere doo ko firi de ndax xóotaayu way yooyu ta loolu mu def ci muqaddamatul amdaax def ko ci mawaaxibu nafi' def ko ci jësbul xulóob def ko ci miimiya def ko ci raa'iya def ko ci nuuniyaam yi def ko ci laamiya def ko ci xaafiya def ko ci midaadi def ko ci yasuuru dégg nga dem na mujj ki baati muhammad yi tur wi muhammad tout court nga xam day jël miim gi woy bayit jël adam dellu gi woy ci bayit jël mim gi dafa sadda mu def ñaari beuyit mim mim jëlaat deer gi togg ci beuyit yooyu xasaa yi diñ ci tëgg rek muy yaat yi kenn xamut lu mu toll nit mënu ko jeexal nga door a dem ci weer wi yanant bi ganee àdduna muy sehru rabiul awal mm-hmm. nga xam ne rabiul awal li ñeel na ma mu ci tëgg ay xasaa nga xam ne weer wi ni mu araf par araf xasaa yi di mu ci defar kenn xamut lu mu toll muhammad gi mu tuddu xasaa di mu ci defar kenn xamut lu mu toll mm-hmm. door a dem ci sahaba yi ko toppoon abou bakar muy jël araf par araf Omar muy jël xaraf par xaraf. ci sëñ Tuba Ousmane muy jël xaraf par xaraf. muy jël xaraf génn ci loolu jël nag sérité bi bi amee muy alquran bépp aaya bu ci nekk mu togg ci mhm. yi mu koy togg benn par benn moo tax Serigne Touba miracle bi gën a rëy mooy mbindam ndax ni mu binde la nit mënta binde limu mu bind la nit mënta bind fi mu doon bind la nit jotewul di fa bind te lépp ci yanant bi rek sallallahu alayhi wasallam xet way wu nek way nako ci mom ba pare corriger way kat yu mag ya day nu corriger dañ ko wax nu len corriger tay xolal burdu burdatul madih ku ne xam nako ci Sénégal ni mu toll nga xam ni burdu téré la bo xam ni ko woy moy Muhammadul Buseyri waaw nga xam misra la fekk bax moko way tawata ko dalon mu def tawassul tawassul moy wéeru ci kàttanu ko mag ngir ñaan dara moo xam nga ci suñu borom def tawasul wala nga wéeru ci ko suñu borom gërem muy yanant bi wala ndax bi digal nañu def tawasul ci mom mo ni tawasalu bi jahi fa inna jahi azimun inda rabbikum da ngeen wéeru ci sama maqam man yanant bi sallallahu wasallam tax ñi jang jang mu tuti ta dof di critiquer affaire ay woo yanant ko gam de dañu dof yanant bi neena ngeen ci sama daraja ñaan ndax sama rajal lu mag la ci yalla borom bi yalla da ko darajal legi buñu xolé muhammadul buseyri radiyallahu taala anhu dafa def tawasul ci tawat di jaxalo motax bimu amé safara mu am ñu wax ni lay tag yanantu bi di def tawasul ci mom diko tag. ngir yalla fajal ko jangorom am na ñu wax ni dafa amon lu ñu wax paralysie am ñu ni paraplégie la am moy paralysie bo xamni tangki yang loxo yep yépp la jàpp mënatu la juk ci lalam muy woy nak pour bëgg sunu borom defal ko safara ci barke yanant bi muy tag yanant am ñu ni dedet sax baras la amoon baras moy lu ñuy wax city yaram bi melni dal dafa am waga sunu borom safara li wérte wor mooy yanant bi jox nako mbajjam mur ko ci mo tax ko burdatul burda moy firi mbajji am ñu ni dedet bur bur amoy feri ak wér guérison ci ara wax ngeen ñaan bur bur'a la ñeneen ñi burda la waaye burdatul madix xool leen fa mu commencé khazal bu rafet ba amin tazakuri jiranin bi zi salamin mazaj tadam an jara min muqlatin bi dami am habati rihu min tilqaai kazimatin wa aw madal barxu fi dalmaai min idami commencé nak di wàcc dal di wax ni أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرب لولا الهوى لم ترخ دمعا على تلل ولا أرخت لذكر الباني والعلمي xasida gu rafet la waaye day xool day woy bu ca biir mu gàgg Muhammadul Busiri dafa gàgg ci biir am na bayit boobu dafa àgg ci fa mablagul ilmi fiihi annahu basarun foofa daa gàgg foofa mu nekk fa rek di ko baamu di ko baamu ba xamatul lu ciy teg ndax dafa am lu ñuy wax misraax bayit day séqalikoo ñaari misraax door a mat ab bayit bayit mhm. pour mu mat ñaari misraax yi ñaari xàbb yi ngay boole mu nekk bayit moom nag benn misraax bi muy benn xàbb bi daf caa wooy fa mablagul ilmi fiihi annahu basarun daa di gàg lan la wax nee yemukaayu xam-xam fa mablagul ilmi xam-xam lu mu rëy rëy di ko jàngale ci yenant bi mhm. fa mu yem rek mooy fii yi daal ci yenant bi neel annahu basarun rek moom daal mindeef la woon donte moo gën ñëpp mhm. taxaw foofa nag nee nañu ci wàllu lu ñuy wax ilham lay ñëwe wala luñ ko yenkewal wala am ñu ne yenant bee ko àggaleel bayit bi mhm. ni ko neel wa annahu xayru xalqillaahi kullihim waaw waaye gis nga seexul xaddim pour la amul moroom bi mu ñëwee ci bayit boobu di ko reprendre dañi fa fihi annahu basarun waaye wa annahu dunuhu aqlun wa afkaaru looloo gën a wér ci raayya ci raayya señ bi dani waaw deug la de muhammadul busri nona na fa ma ilmi fihi annahu basar nee dal xam-xam fa mu yem moy wane ni mindeef la señ tuubaa nag leen juumloo bañu ñu moy dañu warona xam ni wa annahu mom yarantu bi dunuhu aqlun wa afkar yalla dafa sàkk xel mu ne ci suufu yanant bi yanant bi ne ca kaw <laughs> cee maanaam dafa mel ni yàlla dafa sàkk xel ak xalaat <laughs> li ñuy profond profond li muy sori sori xel ak xalaat kenn mun tax ndeke ñoom jotewuñu fa yàlla teg yanant bi martaba loolu moo tax mënu mënu leen ko xam li tax mu de barakallah sëñ Ablaye am na set sëñ Tuubaa yu ma woo nee na sëñ Ablaye Diop Bichri mi ngi ñu bëgg a ci yanant bi ndeysaan ne ko ah loolu day yéeme na mu ne lu tax ñu ni sëñ Tuubaa mhm. képp ku muy sa euh, képp ku aju ci moom mhm. Euh, war ngaa wane sa cofeel ci yonent bi te di ko fësal waxtu wu ah, bu wér a wér ndax euh, bul fàtte ni xasida gii mu def man zanna ne xayra xadimal Moustapha waaw histoire la woon waaw ndax dafa am ku jébbul woon sëñ Tuubaa koo xam ni mm-hmm. Mm-hmm. ci surafa la bokk lañ wax mm-hmm. ci ci ci waa euh, ardu salihin gànnaar te sëñ bi tudd leen ardu salihin mbokkam ñëw ni ko nit ku ñuul kii nga jébblu lu tax nangam nangam sëriñ bi nag ni ko nit ku ñuul kii kii rek la wallaay ndeysaan daal ni ko lii mooy sama carte d'identité bu leen kon sëñ bi bi muy bi muy bi bi muy bi muy carte d'identité boppam waaw li mu wax leer na wallaay man zannani xayra xadimal Mustafa waaw fa innani axdimuhu bi Mustafa axdi zannani xayra xadimil Mustafa Seexul Xadim nee na képp ku njort ci man leneen laa lu dul liggéeykatub bi fa innani axdimu bi Mustafa fekk na ni man kat maa koy liggéey ci ngën ngaa rafet ni mu ko selle aqdimu ila duxoolil janna te dama koy liggéeyal ba keroog may bi ca biir këru àjjana ka daaril qaraari wal muna wal minna këru àjjana joog nga xam ne mooy kërug sax di kërug leer di kërug mébét man dana naw yakunu abada képp koo xam ne nag dafa njort ni dina gërëmloo yanant bi comme ni ma ko gërëmloo ci liggéey bi ma ko doon liggéeyal yurdi jàpp ni dina defati la yanant bi liggéey bu mel ni bi ko defal man Cheikhul Khadim faqaraw dalaalu kooku njortam moo ko sank ay ci réeraange la nekk xamut li xew yan xaaduli minu bil xalaalu nee na nag te sunu borom dina ma yommatal ci daraje liggéey bi ma ko liggéey lepp lo xam lu dagan lay doon. madaatu qablu la daali barwali. ndax man seigne Bamba kep nak mi nekkon fi Bawol maa ko taggewoon ca Libreville Gabon. matahan wana mislihi kullu wali. taw tag ya ma ko Gabon bepp walu boy deg lott na ci tag lu mel noonu. madaatu matal la daa maa yomba. tag na ko tam tag wo xamni man rek ko def ci bir allu ma yomba. tagg woo tag wo xamni moma dindil ay sik dindil ma samay bàkkaar. madaatu inda una Galwa ay xet la ñoo dëkkee Lambaréné man rek ma neewon ci seen bi tag mustafa ma daan kafaani yalida wal balwa tag wo xamni ni fegal samay non, fegal ma ay natu minni ilay qidmatun xad zaman dina joge ci man jëm ci yarante bi liggey bo xam day taxoog baytim ba fa mu teud rawdatuhu ila al qiyam bërëbam ba bam bañu gëna magal te mu fa sama liggey na ag fa mom fofu mu koy séré radiyani sibtuwoo jaylaani te man mii di ko liggéeyal nag setam yëpp gërëm na maa ngi ciy njëkke Cheikh Abdoul Khadir Jilani gërëmal na ma bopp ala ridwanul lazi a'lani Cheikh Abdoul Khadir bi ma gërëm nag yàlla na yàlla defal ko gërëm luy gën di kawel sama mbir radiyani siftu abul hasan may gërëm na ma tam setam bi ñu abou hasan as-sadali ala ridwanun yuqallidul hasan kon yàlla na ko yàlla fay ngërëm loo xam day saxal lu rafet radiyani siftu tijani abul abbas ma ca Faas ca Marok di Cheikh Amadou Tidiane setam gërëm na ma moom xam ala yiridwanun mubidul jeni yalla yalla defal ko ngeureum ko xamni da fay ruslo ta toroxal shaytané radiyani khulafa'ul arba neena tam ñenti saaba yi nga xam ñoo wuto yarante bi ñepp geureum nañ ma seen bopp musturidan muqarrabi man mutba ta man señ touba laq na ngeureum mbolem ñi jige yalla man lam yakuna ni yarda fal karim kon kuma geureumul it ya xam ndax yalla mi aji mom ji lepp ta sak ko geureum na ma radiyani ridan laysa yari geureum na ma lo xam xam ne amatul limite amatul arrêté. jasalilawul Mustafa xayral jaza. fay na ma moom yadantu bi ngeen gi fay jaare ko ci yàlla sama bopp. kama taqabbalan wa waadan an jaza. comme ni mu ko nangulee mboolem li mu diggee woon ak moom. salaatu man karra mu yàlla xaani. waa nee na nag yàlla na yàlla yanantu bi yàlla def ci yenant bi salaatu koo xam ni a day nekk loo xam dinaa dajeeg sama xéewal te du ànd ak benn werante barakallah sëñ Ablaye li ñu amoon ci waxtu dab nañu euh, kooku mooy xayru xalqullaahi ñu ngi nuyu Cheikh Makhtar caan euh, bu yonente bi alayhi salaatu wa salaam. Hmm. taalibe Serigne Touba bi waaye soppe bi yonente bi alayhi salaatu wa salaam. xanaa nga may ma ma gërëm ñu jox wàcc waay waaw dañoo bëggoon sëñ Ablaye a tëj tàggatoo Euh, sëñ Ablaat euh, àddina sépp ngi lay seetaan Serigne Astako jom ñu ngi koy nuyu bu baax. Euh, di doomi Alaaji Serigne Diom di magi ci Mohamed Félix Antoine Diom Abdoulaye Félix Mohamed Antoine Diom ñu ngi koy nuyu bu baax moom tam di ministre de l'intérieur di suñu mbokk di ku baax di ku bëgg Serigne Saliou Mbacké. Hmm. waaye ku bëgg ñi yëngu ci yonent bi alayhi salaatu wa di ko jox wàccuwaayam te di ko ziyaare bu baax. sëñ Ablaat ñu ngi beral nuyoo nag mbooleem ñi nga xam ne ñooy topp waxtaan wi kenn mënu leen lim. sëñ lay Diop Bichri tey mhm. dafa mel ni Sénégal gépp ñu ngi àndandoo ko tey Touba TV ci spécial Gammu. Mhm. incha allah àllarba nii lañ koy waat incha allah bi di ñëw. Mhm. Euh, sëñ laat nga mën a tàggatoo. Euh, sëñ Ablaye Diop mën a tàggatoo ñu mën a tëj yëkkati jotaay bi. jërëjëf ñu ziar bu baax sëñ si Anta. lool. ndeysaan ci bokk ak yow bi. yàlla yow suñu mag nga suñu lépp nga. démb rek lañ daje fee ca Lamiral rek nga xamal ni ñu boo sañoon ñu teew ci émission bi tey. ñoo lay sant bu baax di sant suñu Abdoulaye Diop Bichri wax dëgg yàlla moom it di am mbégte lool ci bokk ak moom plateau bi waaye ñoo wi ziare suñu waa daayira Fatou ba diful baax yi waaye di jiital ci ziar bi suñu wasila Serigne Baara mu suñu Abdou Lahad di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool te ànd ak wér di ziare bu baax suñu mag Serigne Lo Gallo Samb wax dëgg yàlla moom it di kenn si ñun di bu baax ak baayam bu baax ba Baye Amadou Samb ca nu ngi koy di ñaan suñu borom yag ko fi lol di ñaanal seen rak Mouhamadou Nazir Samb momi di suñu lepp di kenn ci ñun wax dëgg yalla nu koy ñaanal suñu borom guddal fanam te wéral ko di ziaré suñu mag seigne Abdou Lahad sen ak seigne Bamba ndjay ak wat Tëngéej jep rek bu ñu limé rek dañuy joom way noo ngi ñaanal suñu wajuru goor wax dëgg yalla moom ak suñu wajuru jigen nga xamni ni lu nekk ci ñun rek ñoko def ci ñun noo ngi leen di ñaanal suñu borom bayi leen fi bañ motali yene yep barki yawul khadim noo ngi bu baax suñu yaay ni la ko waxe legi rek mu ngi nan man sëñ Cheikh ante mom sama xarit la suñu yaay Ami Badiane wax deug yalla heure bi waron na fekk mu dalu ndax ma nga ci France waye bo batay mi ngi top émission bi wax deug yalla bëgg yonent bi lool nak sallallahu alayhi wasallam xamna xamna bu bu bu ñëwaaté Sénégal mom fo mu yobul ko sëñ abdoulaye Diop wax deug yalla moy soxna suñu wajur Madi Touré wax deug yalla momit nang koy ziaré baax di ziaré suñu yaay soxna Fatou Gueye dom ci mbéy gi MC ñom tay dañu am dëj sax ndax euh, rakkom di soxna Fatim la borom këram waajuram wu góor wàcc na nga koy jaale bu baax nga xam ni ndaamaar gii ma yor noo ma ko jox na nga leen di ñaanal bu baax di ñaanal seen waajur suñu borom ku dal fanam waaye noo ngi beral ak ziar sëñ galo Samb moom ku ñu ku ñu bëgg la wax dëgg yàlla te jàpp ñu lool ci liggéey bi wax dëgg yàlla bu ñu demee ba rakkam Mouhamadou Nasir jër bee màkk jox ma ko néew bu déwénee da ngay dem umra loolu yëpp ci moom la ko suñu borom jaarale na nga koy ziar bu baax di ñaanal suñu borom dal fanam di siyaare suñu jëwriñu daayira Serigne Fara Gueye ak Serigne Cheikh Mbacke Gueye ak waa Tëngéej yëpp rek yi ñu kenn ndax ñun waa Tëngéej wax dëgg yàlla lépp luñ mer rek ñoom la ñoo leen di ñaanal suñu borom bu dal seen fan di siyaare soxna Soda Badiane nga xam ne mi ngi waajal gàmmu gi fee ci Touba Aliya ak Serigne Khadim maa fas yéene incha allah fa la ñu fas yéene jàngee ci gàmmu gi moom nga noonu mooy wala dul xalam mooy doomi xalam ah, ñu ngi koy ziar bu baax di sant ñëpp di ziar Serif nag borom lamiral waaw ah, Serif waaw ak soxnaam soxna ah, Dia jógee fii rek fa lañ jëm fa lañ jëm àggale fa ñu bëgg ñu lool nag dëgg yàlla saa su nekk fa la ñuy teew ñuy defal ay teraanga ndeysaan ndeysaan ñu ngi leen di ziar bu baax di ziar ñëpp di jégalu xam naa di ñaan euh, sëñ Abdoulaye Diop Bichri suñ borom bu dal sa fan te wéral la dëgg yàlla moom mii ku ñu bàyyi xel la saa su nekk fu ñu daje rek wàccuwaay bi la jox yàlla guddal sa fan te wéral la di ziare soxna ummi Mbàkke moom sëriñ Sidi moom sëñ Abdou Lahad waaw di ko ziare bu baax moom it di di si ñëw sëriñ di si ñu lépp di ko ziare bu baax di ziare sëñ Abdou Lahad seen moom it di taalibe Serigne Fallou Sidi di suñu mag di suñu lépp nga xam ne bu yàggul rek la dagg terrain bu yaatu jox ma ko ba ñu tàmbali ko def ko addi Serigne Touba koy ñaanal si borom guddal fanam yokk ay xéwal baax soxna nga xam ne lii ma moo ma ko jox donc koy ziare ko ñaanal si borom guddal fanam mbooleem soppe yëpp rek ñu kenn ambassadeur Serigne Touba ma nga Touba mooy mi ngi topp émission bi da nga koy ziare baax di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan suñu borom defal ñu tawféex weeru gàmm gi ñu dugg ceeg jàmm génn ceeg jàmm ci barki Cheikh Khadim barakallah sëñ euh, Abdoulahat yow loo amagul rek daa agseegul ndax lii may teraanga euh, mooy xam ni wama min daabatin fil ardi ila ala llahi risqa wa yaalamu mustaqaraha ndax yow yàlla dogal na mën ngaa jàng yaru nga baax nga euh, di nuyu nag bu baax ni nga ko waxee galo di ko baax di suñu mbokk di suñu xarit di rafetlu nag suñu mbokk moomu di Mouhamadou Nazir li muy def ndax nit du baaxee dañ naan ndax mbokk yaa ko wax waaye ndax mbokk mu baax maa ko wax ndax li muy def daarul moxti ay maamam ba ñuy gàddaay di ñëw daarul moxti yaakaar naa ni booba euh, euh, euh, melul nii mu mel wala ganeegul àddina su su su su ñëwee nag daarul moxti yàlla dimbali ko mu dellowaat ko daarul moxti loolu fierté ci ko mbokkal di jëf-jëf ju rëy ci sëriñ bi mel na ni képp koo xam ni mbokkam nga rek bëgg nga ci ndax lu baax fu mu baaxee yaakaar naa war nga cee kontaan sa mbokk du koy def nag war nga cee gën a bëgg yàlla yàlla aar ko te yokk terangam te musal ko ci barkeb sëñ Tuubaa te musal ko ci cat ak làmmiñ sëriñ xaadim Guèye bu alaaji baara mënuñoo wax ci moom ndax dañ ko jige lool xalaat di wax rek ne la la alaaji moom lañ baara waxoon rek moom lañ lay wax yow daal doxal bis bu set saa boo xëyee danga yokk ndax alaaji baara la ko garantel te kooku nag sëñ Ablaay damaa wax ni wahab lana zurriyatan tuddimu al amala saaliha ayaa xaddimu zurriyatan tayibatan tujaddidu nahja nabiyal mustafa tajtahidu sët ya sëñ tubaa ñaanoon nag ñépp baax waaye ki sëñ tubaa njëkk a tànn nag cib sëtam mu wuutu ko nag kooku mooy doomi soxna maam xëri sàll ja ak Cheikh Mamadou Fadal waxoon ni tey lu kenn lu mo lu loo xam ni kenn moom na ko jeex na lu ñëpp bokk fi des nan ñëw ñu bokk ko jàng aaya ba fa bi ma rahmatan min allahi linta lahum walaw kunta fazzan alisal xal bi lan faddu min xawlika kooku mooy alaaji baara yàlla fanweeri weer yi nga xam ne wecc na fanweeri at jëfal sëñ tubaa liggéeyal sëñ tubaa ci tubaa loo xam ni képp ku duggati tubaa sam xel dem ci yow Cheikh Mamadou Bachir barki démb lakk la ko doon wax yaakaar naa ni fii ci Masaalikul Jinaan keroog ba mu dikkee la mu wax alaaji mbàkk wi euh, yaakaar naa ni leer na nañ euh, euh, barab bii mu joxoñ ni fii la ak fa mu nekkoon wute na lool waaye mu ni fii la fii fii la sëñ Tuubaa wax kon kon kon kon ba ba muy sëñ Tuubaa la ko sëñ Tuubaa jox ay bëtam jox koy léppam ba gis ba mu doon gis moom rek ko doon gis booba sa Abdou Lahat waaw sëñ Ibulaay ah, Jaañ moom it di ku baax ndeysaan di ko xam ne moo yor génération automobile nga xam ne màggal Tuubaa gi di ci def liggéey ba mu solo ndeysaan di def dépannage gratuit. Mm-hmm. wax dëgg yàlla sëñ Ablaye bëgg naa nga xamante ak moom. comme que gaa yëpp yor ay ndaamaar moom. te moom taalibe maam Thierno la. nekk fii ci point croisement Cambérène. waaw Ibulaay ah, ku baax a nga xam ni suñu ndaamaar yi ñu yor saa bu amee jafe-jafe. Mm-hmm. da koy defar def ko addi sëñ Tuubaa. waaw ku baax la muy xam naa ne dinañ ngeen xamante ak mbokk taalibe yëpp rek noo koy ziare. màggal gi képp ku otoom paan. Ah, moo lay def ab te bu ko defee ba noppi addi Sëriñ Tuubaa la koy def kon nag ku mel noonu war nañ ko ñaanal barakallah suñu borom yokk ay xéwalam baax loolu dafa am solo léegi bi may ñëw ci ji tey ma doon vidé sama oto ba ma ñëwee ñu def fa kii bi ba pare bilan bi lépp muy cent vingt-trois mille fii ci euh, station Castor bi may bëgg a fay sëñ Abdou Ndiaye Elton moo ne fii ni ma genn wàll gi ngay joxe soixante et un mille cinq cent li ñu def naa ko addi Sëriñ Tuubaa wala ñoom nit ñi sëñ Touba rek la bëgg. sëñ Touba rek yàlla leen yàlla fay. ñu ngi ziare yaay Ami Collé Niang nekk fii ci ba moom itam dafay soppe émission bi. chaque émission ñii dañ koy topp duñ ko rate. sëñ Saliou Sène bu Italie taalibe sëñ Fallou ci Géejawaay. mu ngi topp nee na mu ngi bëgg lool. soxna Aminata Ndongo ko Zalika mu ngi topp jataay bi sëñ Gumba jóob ca Ndar nee na bëgg na ci jataay bi. sëñ Moustapha Amar Dar maa ko ca Thiès mu ngi topp. Seex Diba Mbacke Bawol sëñ Saliou Pouy ca Diourbel soxna Ayda Thiam suñu jigéen bu baax nekk fële ca cité moom tam ñu ngi koy bëggee soxna Codé Diop ca Louga Isbu ya moom it ku bëgg émission bi la di ko seetaan di suñu soppee ñu ngi koy ziar sëñ Basiru Baabu naka noonu ak sëñ Daara Mbeng soxna Njéeme Ndooy ca piir euh, ñu ngi leen di bëggee ñoom ñëpp du ñu rate émission bi waaye di sant waa Amérique yi bu baax ndax ñoom dañoo bëgg émission bii di kenn du sëñ ñëpp ngi seetaan ñoom ñëpp a ngi seetaan sama jarbaat soxna Afsu Jaañ ca Maryland ñu ngi koy sant di ko gërëm Cheikh Arfan mi ngi lay nuyu Cheikh Arfan ñu ngi koy ziar suñu soppee ca bronze ah, ca New York ñu ngi koy ziare di ziyaare sëñ Saïd Ñang mu sëñ Saaliw taalibi sëñ Jiili mu sëñ Saaliw ñu ngi koy siyaar moom it ca Amérique di nuyu mbokki Amérique ya yépp nag sëñ Abdoulaye Bey di kenn ci nun nekk ca Virginia bis ñu ngi koy ziyaar ak waa Virginia yépp soxna maam Marème Mbàkke ca Saint-Louis Missouri soxna maam Marème ca waa Saint-Louis Missouri suñu soppe la moom it maa ngi koy ziyaar ak Pam Moussa jamono ba fa nekkee ci maam Cheikh Anta waxtaan ci dafa kontaan keroog ah, woote ba Saint-Louis Missouri ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp waa New York yi waa daayira vaak waa Mika nuyu tam waa Allemagne ñi ma jógee rek barki démb boo Njaay waaye beral nuyoo soxna Aram Diop assurance dégg naa nag sëñ Ablaye Allemagne waaw Aram Diop assurance maa ngi koy nuyu ah, bu cees waaw mm-hmm. ah, dafay ku baax soxna Aram Diop bi may nekk ci lijjanti këyit yi dem Allemagne ak yëpp yi jëm ci yu baree bari ay assurance yëpp moo ma ko defal ah, gratuitement gratuitement nit ku baax la maa ngi koy ziar nit ku bëgg sëñ Tuubaa la ba pare fonk émission bi du ko rate kon ñu ngi koy nuyu moom it ak waa Thiès yëpp nag nuyu kuréelu soppe Ablaye Diop Bichri parce que maa ngi ci 53 groupe soppe mais euh, doo mën a jox ku ne loxo waaye ñu ngi nuyu ñëpp bi ci gën a kawe daal di université Ablaye Diop Bichri 1 ci njiital suñu Abdoul Khadir Fall maa ngi koy nuyu ak bu Thiès beeg bu Njaareem beeg yëpp ñu ngi leen ah, lépp sëñ wane rek waaw yàlla na sëriñ bi fay ñëpp <laughs> ah, soppe yi nga xam ne ñu ngi jox ay message bari na euh, sëñ Cheikh Kebe bu bel loxo ñu ngi koy nuyu mu ngi joxe message am at mu jot dama leen defal conférence ca marché Thiaroy sëñ Xaadim Gueye bu Kër Massar moom tam mu ngi nuyoo ñu ngi koy bége bu baax ku bëgg émission bi la di ko topp naka noonu ñu ngi ziyaare sëñ Badara géey maa ngi koy nuyu léegi soxna Ngone Cuun soxna Ngone Cubbu sama soppe bopp maa ngi koy ziyaar fii ci Liberté 6 euh, naka noonu ñu ngi nuyu soppe yëpp rek sëñ Moustapha Ndooy barakallah sëñ Mansour Malouf Diop nekk ca Daaru Salaam Dias ñu ngi koy ziyaar ak sëñ Sidi ma fa nekk sëñ Sidi Mbàkke sëñ Sidi Muxtaar ku baax la surtout borom sam, waaw si si ak borom ak borom gaawaan waaw ku baax a ngoog. ñu ngi koy siyaar bu baax. kon daal mbokk yi émission baa ngoog. doomi Serigne Sam moom sëñ Mor Soxna la. waaw ñu ngi koy siyaar ku baax la ku baax la ku baax la ku am fu mu tabax jumaa ju rëy. waaw mu ngoog ñu ngi koy siyaar barkala sëñ Ablaye euh, mi ngi noonu kon ñu ngi nuyu Fa ak euh, soxna Boy si Ndiaye ci euh, Castor fii ci Jëppal nuyu ñi doon topp émission bi yëpp di leen jox mbokk yi àllarba incha allah ci gàmm warte yonent bi alayhi salaatu wasalaam nuyul sunu tailleur bi nag Cheikh Niass Cheikh Niass Couture Fadel Couture waaw Cheikh ku baax man mii sama tailleur la Fadel Couture waaye nuyu Mamadou Ndiaye mi nga xam ni moo ñëw lii Sam Couture waaye nuyu Fadel Couture ak Masay Couture ñoom ñëpp léegi waa Allemagne dama ko fàtte maa ngi leen di sant waa Allemagne waa Berlin waaw ah, parce que teraanga yi ñu def bari na Cheikh Anta ndeysaan dégg naa teraanga yi bari na xanaa après suñu wàll waa damay nuyu rek sëñ Makayre Kayre mi nga xam ni ak sëñ Ndiaga Mbaye ci njiit yi euh, sëñ Moustapha Gaye sëñ Omar Dramé euh, ak ba ca waa ambassade bi ñi nga xam ne sax ñoom taalibe seex yi dëkk ba daal Allemagne war nañ ma loo xam ne ci cofeel ñi jóge ba ay Hanovre waaw yow ñëpp la sopp yow ñëpp la sopp loolu nag bu ñu teewee suñu première émission war nañ leen delloo njukkal sant leen kon waa Allemagne yëpp maa ngi leen di sant di jox rendez-vous waa Italie ak France ak Angleterre ak Suisse ak yëpp naa defaat ak ñoom tournée ci tournée boo war a def international incha jërëjëf sëriñ Abdoulaye Diop Bichri euh, jërëjëf ci waxtaan wu am solo wi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax mbokk yi àllarba incha allah altine si siratu saalihiina wa saalihaat dinañ ànd ak euh, sëriñ Mbay Mbàkke jaaxal ñang nuyuwaat bu baax euh, sëriñ Samba Kane Chérif Jonn sëriñ Babacar Seck Adja Dia Seen mbooleem ñi topp ñëpp ñu ngi leen nuyuwaat ziyaare waat soxna Kine moom Cheikh Abdoulaye Lahat waye ndokelat bu bax sohna Bali Muntaxa sohna Fat Bintu sek, mu ngi koy nuyu bu baax sohna Fat bintou sek mu ngi koy nuyu ndokkeelaat soxna Bali Muntaxa ci màggal gii ci jëf jure ji nga xam ni képp bépp délégation bu ñëw Touba jaar fa yaakaar naa ni teral na la gunge na la teraanga joo xam ni yaakaar naa ni da nga xam ni kii daal moo moo moo moo mën a nekk ci keppaaru Cheikh Mamadou Muntaxa mbokk yi kon na ngeen xaar altiné inshallah allah ci siratu salihin wa salihat alarba dinañ ñëwaat ak sëñ Ablaye Diop Bichri Euh, gàmmawaat ndax yaakaar naa ni euh, Serigne Touba bisam yëpp wala heurem yëpp gàmmo la ci yonente bi alayhi salatu wasalaam Mansour jërëjëf Guèye euh, daam taalibi Serigne Ahmed Moussa Pape Cheikh Ahmed Tidiane Bey jërëjëf ñu nekkoon ci régie bi salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu déglu lii may wax borom Touba ngeen dal di xam ne borom Touba mooy borom Touba jug leen taxaw déglu